kii 2 a bi dafay déplacé wu dem kër champion yi seeti leen waxtaan ak ñoom pro ñun ñoo leen ko promettroon loo xamante ne nii lu bees la wax nañ leen ko saa yañ ko yëngalee rek ñun ak yéen bu ñu bëgg leen tee Sénégal xam ni ñun ñoo leen moom yéen yéen ñu moom yéen tamit mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen siyaare di am mbégte ak kontaante di jàkkaarloo ak yéen mbokk yi nous sommes direct sur la 2STV ñi yi ñi ngi ci moom moo fi nekk ñu ngi ci bërëb boo xamante ne ni nit koo xamante ne ni bi muy nekk ci làmb làmb amoon na nu mu demee waaye moom liggéey na def na façon ba làmb jar mbokk yi laa 2STV tey déplacé wu ñëw seet si ko Bantamba ak équipe am du Mbaye ak équipe am Moustapha mi ngi ci biir Pamaay Karaajo Bruno Mbaye moom mooy capitaine bi Momo mi ngi ci biir Libaas xale yooyu nga xamante ne nii làmp moom moo coté loolu yëpp mbokk yi ñëw ànd ak yéen di bëggalante ak yéen kaa xool li cey dees affaire bu garaaw lu doy waar loo xamante ni nii dama leen bàyyi ngeen découvrir ki nga xamante ni nii moom moo nekk ci ki ñu seet si ci plateau bi mbokk yi ki ñu seet si tey moom mooy Balla Gaye numéro de Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye Balla Gaye numéro 2 doomu Double Less Balla Gaye numéro 2 mi nga xamante ni nii wax nañ leen ko bi muy dugg si ci làmb am na loo xamante ni nii foofu la foo xamante ni foofu la làmb tolloon mu liggéey def loo xamante ni nii lu doy waar la ci 2005 la dugg ci làmb waaye 2012 ci la nekk roi des arènes ci la dégg daal yi juróomi at nga nekk ko ci làmb dégg daal yi loolu bariwul woon wala gisuñu ko ci moom lañ ko njëkkee gis xale boobu nga xamante ni nii moom moo def lu am solo loolu ñu fekk ci kër magam ki nga xamante ni nii moom tamit dafa liggéeyal làmb mbokk yi ñu ngi ko fekk ci kër Aziz Alé Ndiaye ñu ngi ko fekk ci kër magam ji nga xamante ni nii mu Balla Gaye tolloo fii ci carrière am am na loo xamante ni nii moom defal na ko ci mbokk yi ñu ngi ko fekk ci kër xaritam bi nga xamante ni moom mooy Baye Alé Ndiaye mi nga xamante ni yëpp moom moo ko yombal ba mu demee nii ñu koy jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci moom Baye di nuyu bu baax a baax a baax waaye mbokk yi xam ngeen ni tey jii la 2STV bi dina indi lu doy waar mbokk yi semaine bi ñu génn làmb amoon na fan la fan la xewe woon ñu ne ci Iba Mar Diop kan moo ko tëgg ñu ne Gibson production dina feeñ ci biir Bantamba waaye xam ngeen ne ñu ngi jëm ci bisu la 14 bisu bii di ñëw fan lay xewee ñu ne Iba Mar kan moo ci kan moo ci woote am production moom moo ko woote Pape moom moo koy sëgg ak ki nga xamante moom mooy Jackson loolu yëpp dina feeñ ci biir Bantamba waaye balaa maa tàmbali salaamaaleykum maa leen di nuyu na ngeen def yéen ci jàmm naka affaire yi sama copain. booy naka waar. yaa ngi ci jaam. ana Balla. <laughs> sama copain la sama xarit la bëgguma koo tooj sama ko dama koy bañ a yëngal. mais ba tey ci la 2STV bi wax naa leen ci la xewee salaamaaleykum. na ngeen def yéen a ci jaam. naka waa kër gi. alhamdulilah maa leen di siyaare. mbokk yi kamoon si leen. ñu seeti Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye. mbokk yi kamoon si leen ñu seet si xale boobu nga xamante ni nii wax naa leen ko lu am solo la def ci làmb loo xamante ni nii lu doy la Balla Gaye numéro 2 moom moo bëri ak ki nga xamante ni moom mooy mbay Diouf Balla Gaye numéro 2 moom moo bëri ak Bathie Seras Balla Gaye numéro 2 moom moo bëri ak Ousmane Diop bala Gaye numéro 2 moom moo bëri ak saalum saalum Balla Gaye numéro 2 moo bëri ak Issa Pouye Balla Gaye numéro 2 moom moo bëre ak ndaanaan yooyu nga xamante ni nii bu làmb tollee fii dañ ci am cër mbokk yi yegg si nañu sama xarit moo tëju bunt bi Soore Njaay maa lay siyaare naka waar sama mag baay maa lay nuyu bu baax a baax naka waar yaa ngi am tawféex sant yàlla déedéet sonn ma xaw na metti maa ngi xaw xëxët tuuti tuuti rek mais maa lay béggee bu baax a baax a baax tey ma ñëw sa kër ah seet si fi Balla Gaye numéro 2 waaw loolu la ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu équipe 2STV bi ñëpp di ci jiital Karadio muy suñu frère ak ñoom Birino ak ñoom Tafa équipe bi nga ànd ñëpp rek caméraman yi ak techniciens yi ñëpp ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Hmm. waaw tey Balla Gaye da nga ko fekk këram. Hmm. di dafa delloo mbaatu ca ndaala hmm. loolu moo waral ñu fekk fii tey fii këram la hmm. ñu ñoo bokk kër gi ñu ñoo bokk lépp maag moom Balla Gaye numéro 2 Baye Ndiaye waaw loolu dafa yàgg xam nga nit bu fekkee dafa am la fa moo jiir sa juddu tey kon loolu yàgg la hmm. dañuy feddali ànd bi rek ndox ca mag ña la woon moo tax tey yàlla dogal hmm. maa lay bëggee bu baax a baax kii sama copain la kii sama rax la sama raxu bopp la Soxna <laughs> Ala Ndiaye ni bu baax mais maa la gis nga yotu saak bi non <laughs> ak ñàng ak ñàng moom ak Badou Ndiaye ak lañ samay cousin lañ maa leen di siyaare bu baax a baax kontaan nañ ci yow asalaamaaleykum maa leen di siyaare champion baa ngi bu baax a baax Jibi Ndiaye maa lay bëggee. ci loo nekk naka waar. yaa ngi am tawféex. kii mooy Jibi Ndiaye mbokk yi moom laa andi wax léegi naan leen Iba Mar Diop làmb amoon na fa. làmb joo xamante ne làmb joo am solo jugal taxaw tuuti. làmb joo am solo. amoon ci stadium Iba Mar ñu muy dimanche bi nga xamante ne ni moom la ñu génn Jibi njaay moom moo ko tëggoon maa lay nuyu. Ah, ah, maa ngi lay fay. di la siyaar bu baax a baax. Mm-hmm. di nuyu mboolem ku ma fekk ci kër gi. Mm-hmm. di nuyu sama xarit Baye Ndiaye. Mm-hmm. moom mi nga xam ne moom moo woo fii tey ma fekk ko ci këram. di kontaan ci émission bi ngeen def nii. maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa DSTV. maa ngi lay siyaare bu baax a baax dimanche lañ génn ci sa bis. mu nekkoon bis boo xamante ne ni bis bu am solo la bulldozer moom moo ci daan ki nga xamante moom mooy brise de mer mu nekkoon làmb ju neex nga boole ay ndaanaan. maa la koy wax moins de vingt cinq ans nga tëgg bi dafa feesoo. nu mu noonu. non làmb ji damaa yàgg ci terrain bi. Mhm. xëj na turu Jibson production mooy gan ci làmb ji mais yow xam nga ne yàgg naa ci terrain bi. dëgg la ba bu may boole xel yi damay xam xel yi nga xam ne dañuy nekk en euh, top nga xam ne moom leen ñi gën ma mhm. mhm. ngi ciy sant yàlla bu baax a baax nag bi ci gërëm gërëm sama xarit muy Baye Ndiaye. ndax jàpp na ci combat bi. maa ngi ciy sant Abdoulaye Ndiaye. sama nijaay. waaw di la ci sant yow mii. ndax def nga ci liggéey bu rafet. di nuyu nag sunu tey muy Balla Gaye mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mm-hmm. te di ko xamal ni ko émission bi mm-hmm. na doon émission boo xam ne ni bu ci jógee day am combat bu mag incha allah amin amin maa ngi bu baax a baax bi kañ la ah prochaine journée bi mi ngi ñu ngi ci Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar alhamdulilah Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar ñu ngi jëm arène nationale mars incha allah ci kàttanug yàlla. ak la 2STV lay doon wax nañ leen ko bu baax a baax ñu ngi leen di nuyu mbokk yi seetaan la 2STV yegg si nañu. salaamaaleykum ana Balla Gaye numéro 2. ok je <laughs> sama xarit bi. Modou. maa ngi lay siyaare. comment sant yàlla. maa ngi ko alhamdulilah maa ngi lay béggee bu baax a baax naka waar. tey waa Colobane la dama def yëfu Grand Dakar. Hmm? Fall TDD moom moo génn ak man fii. Ah, macha allah bu doy waar sama xarit bi nga xam moom moo nekk si Cap Plateau Balla wax na lu am solo ah li ma sañse. lu am solo mais yow tamit gis naa la. Ah, waaw. Amzo Fashion Boali. waaw vraiment moom hmm. a ñëw la macha allah. waaw da ngeen a la nag sama xarit. saa ma soxlaa dafay defee vite kon ku soxla ñëw bu rafet nag. waaw dem ci Omzo Fassane. Omar bu Waali. bu Waali. jeex na mel ni tamit ku ci bëgg da ngay dem ci tout type d'habillement TTD mi ngi nekk Touba fi nga xamante ne mooy Sicap Plateau Sandaga dinaa leen jox numéro bi léegi ci kanam. mais maa ngi lay siyaare. maa ngi siyaare toogal man ma toog nii. waaw toogal nii bisimilah aywa bisimilah. maa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax a baax. kontaan naa ci yow bu baax a baax. mais maa ngi gën a kontaan vraiment kontaan naa aussi tamit. Euh, ci teew gi nga teew fii. waaw gis nga. maa ngi lay siyaare. ñu ngi doon siyaare am jàmm. maa ngi am tawfeex affaire yi. sant yàlla la ngi ci kaw. waaw maa vraiment kontaan naa ci. ñëw bi tey fii. jërëjëf. nga fekk ma suma kër. Mm-hmm. sama kër mbokk. Mm-hmm. suma kër frère suma kër papa et tout ça. Mm-hmm. muy kër Aziz Aly Ndiaye di suma papa tout le temps ma ni ma ko waxee. di appartement Baye Ndiaye. donc fii nga ma fekk euh, da doxantu far fekk ma fi nag. waaw ah, vraiment noonu la demee nag. waaw ah, ah. Aly Ndiaye ci mhm. loo xamante ne ni démb la Baye Ndiaye ngi koy wax léegi. dëgg la yëpp dinañ ko waxtaanee mais comme li ma ko waxee ci bunt bi. Mhm. dimanche passé Iba Mar Diop dafa amoon làmb ju am solo. Mhm. mu làmb joo xamante ne su kii ma fekk suñu frère bi Djibi Ndiaye. ci production moom moo ko tëggoon. dëgg la bëgg ñu ànd ñu dem seetaani ko. bisimilah. ñu def loolu. waaw ah, mais ci la lay xew ayca ñu ànd ak waa Régis ñu dem ah, seetaan ni Gibson production bulldozer brise de mer bu Thiaroye ayca ah, ñu ngi ci bis bi nga xamante ni Gibson production moom moo ko woote ki koy bëre moom mooy brise de mer numéro 2 bu Thiaroye ak ki nga xamante ne moom mooy bulldozer bu Malika muy combat ñaari xale ñaari xale yu koy bëre yëpp kenn amu ci 25 ans. loolu di wane ni combat bi combat xale la boo xoolee li nekk sama ginnaaw nga xam ne ay xale rek ñoo ñëw ci stade bi tey mbokk yi si desivi ñu fas yéene ci Bantamba ak yéen Mamadou Mbaye waaye lu bees loolu ngeen di gis wax nañ leen ko dañ leen koy tàmmal mari bi di ñëw am na beneen champion bu ñuy seeti te dañuy bette duñ tàggu benn champion dañuy xëy rek jël su oto wala jël suñu bagage ñëw samp ko sa bundu kër def direct boo fa nekkee ñu direct boo fa nekk ñu jël sa waa kër xanaa looloo neex ci Bantamba lay xewee écurie Boy Baol mi ngi nekk Grand mbooloo Thiatou Fass a ngi nekk écurie Fass sore woo leen li dox seen diggante soriwul Fass ak Grand Dakar benn lanu cey làmb moo yaatu dem nan bal mbër di génn Grand Dakar waaw yàgg na sax yàgg na fi ndax Boy Bambara bëri na ak maam góor gi. lool Thiatou Fass daje nañu Thiatou Fass daan na ko moo ko doole waaw waaw boo xoolee taxawaay yi xam ni am na différence. li si kanamay daax. ñaari yaar champion bu mag bi nam nañ ko Mbaye Feugeule ak Kayma Kayma moo ngemboolu xonq li Mbaye moo ngemboolu weex li mais xamal naa leen benn affaire de temps yi sedd na seddaay boo xamante ni yërëm naa célibataire yi célibataire yi ñoom seexu <laughs> dara ba waaw waaw attention sam papa Salam Diallo naa la borom ma taas ro mbax tasa mbax <laughs> carororororor rek taas mbax bi vrai bi ba jakin attention ñaari xale yaa ngi xeex lay léeg la mbay fëgal ak kayma kayma songu na ko kayma ngi xeex ak mbay fëgal mbay fëgal bëggatul dara ci xeex bi fi mu toll bëre la gën a bëgg mbay fëgal ak kayma mbay fëgal bu arrière moo kayma attention kayma mbay fëgal attention mbay fëgal ak kayma kayma nar ngaa daanu ñaari yoon jekk jekkati daanu nga ñàkk nga maa la wax ni mbay fëgëre am na ndam ci kaw Kayma mbay làmb ji waroon a teel a waroon naa gën a teel a jeex. waaw di la fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di gërëm waa kër Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam mais Modou yow dañ lay remercier dañ lay remercier bu baax ci affaire Abibulaay yi gis nañ ne mbëri ku ci am problème nga dox si wax si man moom personnellement maa ngi lay gërëm ba fu gërëm yam di la sant di la ñaanal sa liggéey bi yokku bàyyi la ak sa papa ak sama yaay mbaaya man mbaaya man sama yaay la bëri nga yow waaw bëri naa waaw yaa daan waaw maa daan le 24 léegi nag waaw sant yàlla rek ndànk ndànk rek waaw ndànk rek yaa ma gën a xam nga ni soko sim ak mobile nañ ñëw ñu eh, yow li nga laaj dafa di barke ak dafa jot quoi booy dama leen a may sens ñii dem ñi taw ak général Fass li may wax nëbatuuma soko mobile général Fass pare naa pour bëre ak ñoom. yox la Buldozer xale bu Malika baa ngi nii wax naa la moo dugg ci tournoi bi génn cek ay ndam xale baa ngi nii nañ ko bàyyi xel tey noo def. waaw sant yàlla noo ñëwee Mor Mbaye ak kontaan ak ni mu daan ñëwee bëgg bëgg contentement. waaw waa kër Mbaye Fëgale ñee waa kër Mbaye Fëgale la ñu ñoom ñoo bëre léegi ñoom ñoo daan. ndaanaan la nañ ko bàyyi xel. kii mooy Sa Thiès ndaanaan a ngi nii moom e loo wax si bi sant rek Alizé lañ jàkkaar lool amul frein moo ngeen boo Lagos bi amul frein ak Alizé attention amul frein Alizé attention kaawo attention kaawo génn na si biti attention la ilaha attention amul frein daw na jëli Alizé ñaar jàppante nañu ci kaw lañ ko jàppante attention amul frein Alizé amul frein dawaat na jëli na ñaar amul frein ak alise Alizé jàpp na ko. attention ñaari xale yi amul frein Alizé ñoom ñaar attention ndeysaan la ilaha illallah day daanu daanu na day daanu amul frein Alizé daan na ko la ilaha illallah xeex bi baaxul ci amul frein li nga yor nii. non Modou mbër la gaan. foo ko jëlee. yi ñoo ma ko jox rek. parents yi parents yi. maa lay siyaare. doo lay siyaare ah, waa de gis nga ay affaire ay War 2. soo amoon question booy posé Balla Gaye loo koy wax. Balla Gaye mbër. mu jël xale ñoo mag ñoo war xale ñu bëri seen biir. loolee laa mu quoi. maa ngi koy jub benn baraag mbooloo. ay yiw trop. waaw bari ka yaa ma gën a xam ak sëñ Tuubaa. boo amoon question boo koy posé loo koy wax. Balla Gaye lu ma koy posé mooy na ñëw bëre sama rakk bi rek boo ñaa jàpp daan ko. lu ma koy laaj digganteem ak Boy laa koy laaj combat boobu askan wi yëpp dañ ko soxla. non moom Balla Gaye. waaw boo amoon question boo koy laaj lan lay doon. man bi ma koy laaj. man euh, dama koy ne yow ci teneur yi kan nga ci soxla. bala na jël boo ñaaman loolu laa koy. question laa wax question boo koy posé mooy Balla na may booy sens. di la gërëm quoi mais bu ñu amee question bu ñuy posé Balla Gaye numéro 2 mu jël Bombardier wala mu jël Gris Bordeaux wala mu jël euh, comment dire Tapha moo ñu gënal booy Niang. lu tax. non Boy Niang Boy Niang dafa daanu ku la daggee daan waruñu koo jëlaat ñun. mais c'est-à-dire ñi ngay wax ñëpp moom bëre na ak ñoom. parce que que combat jànk dàqul. waaw d'une part combat jànk dànk na ko mais Boy Niang dafa am ñu mu bàyyi ci ginnaawam ay Yékini junior ay ñoom Malick Niang ñun ñëpp ay ay adversaire lañu mais ñoo ñëpp na bëreeg ñoom Balla Gaye gaay. Balla moom bëgg nañu wàcc ci terrain bi ndax champion la te daa bokk ci làmb Balla Gaye heure rek euh, euh, du neex dafa war a am combat moom même moo Boy Niang man bëgg naa. waaw soo amoon question booy posé Balla Gaye loo laaj. waaw Balla waa neexal lamb ji moom bu bëree lamb ji neex na jël Boy Niang bëree ak moom grand contre petit bi grand contre petit bi soxla nañ ko franchement aw ma lu ma koy laaj parce que dafa war a jël Boy Niang bëree ak moom loolay lamb ji waa ju bari ji mu fi nekk di mel mbale amul solo Balla Gaye na jël Boy Niang bëree ak moom bu bëggee neexal lamb ngaa la déranger ak Zarko 2 ñoom ñaar ñoo nekk si digg géew bi mbokk yi attention ñaari xale yi jàppante nañ ngaa la mbokk yi ñu fàttali leen Ngalla moom moo ngemboo Lagos bi Zarko 2 ëñ na ko Zarko 2 ëñ na ko moom moo ngemboo lu weex na ko col ñaar loxo yëpp waaye fan la ni mujj yow eh yow laa ñaay ndekete tribune bee gën a neex ndekete tribune bi lépp ngay gis lépp. Oh, daan na ko daan na ko daan na Zarko jëli bi dama bett. booy Dakar physique bu rek physique bu mooy bëreeg moom physique bu tar parce que mbër taan la waaw moom mooy loolu daa os waaw mais dina xam ne ku ko gën a la tasantel quoi maître am la tasantel. ah oui maître am. kontaan ci yow. après incha allah le deux dinañ ko tegal lan mooy def defam quoi. Ah. Mhm. la ilaha illallah eh, Tidiane Tidiane nee na taxaw leen bu doon ñëw nee na la ilaha illallah daa nekk si yoon nañ ko bàyyi xel. waaw équipe Rebeuss ay champion ñoo fa nekk. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama deuxième combat. waaw. mais dañu nekk ay xale rek di jàng bëre nekk ci ay loxo. bu ndaw daan nañ ko. wala ñoom ñaar nu mu demee. nee na. ndaw na bu ndaw daan na bu ndaw daan na siyaare Modou Mbaye fay naa la seen production lamb ji li ma jaaxal ñaari xale yi nga tëgg ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci vingt cinq ans danañoo feesale sax loolu bu ñu yàlla julli ci yonent bi dañu ciy sant Abdoulahan Ndiaye liggéeyam Abdoulahan Ndiaye la guddeeg bëccëg boo dee def événement du la bàyyi dalay lay woo du nelew guddi léeg-léeg daf boo da ngay dem ba mu jóg da ngay yërëm sax laat mention spéciale di sant nag waa Sénégal ñaan yi may ñaanal di sant suñu waa dëkk waa seew bis yi nekk suñu kanam ci làmb waa d'abord félicité Djibson daaw la ñëw xaritoog ñëpp jàmmoog ñëpp am lu mel nii ñëpp yéene ko nit nag buñ la yéenee ñaanal la day yomb mat na semaine laaj ko yàlla na la yàlla musal ci cat laa koy ndax ni ko nit ñi def kon nag yàlla suturaal na ko terminé na ñi la wax ni Mamadou mercredi bii di ñëw diggante Serigne Ndiaye 2 ak Libidor face à face bi ma ngay am ci jardin public bu ginnaaw raay sud fañ ko defee woon drapeau Mame Diarra Fam di sunu sœur honorable député di nit bu baax di la wax ni samedi bii di ñëw Pape Ndoye ak Jackson kooku Thiam production la Baba Diaw sunu frère moo doogi nii di wax ne bu ñu ko jógee le 22 nag ci la Serigne Ndiaye de ak Libidor xale face bi espoir bi génn Libidor ñibbi Kayar Kayar war koo ëmb indi kii paas am coom yaakaar lool Mor Kankang au sot Vito Boy Morone Dofu ak Saba fa laay yem bu ñu fa jógee nag. rendez-vous yaa ngi ci kanam. Pamet Sow maa ngi lay dégg ci kuréel yuy yëngu ci wàllu social di jàppale doomu Sénégal yi si di jàppale ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw maa ngi lay bëggee bu baax. foo leen ci toll ñu ngi lay sant ñu ngi ci avancement bu bu bu doy waar bu mucc ayib. wallahi wallahi yàlla xam na ko di yëngu ci kuréelu Adja Ako Ndiaye assistance sociale ànd ceeg euh, ki nga xamante ne moo waral bés bi muy euh, Barham bu Baye Niass moom mi nga xamante ne doomu ndeyam di xaritam di wëllëram di lépp muy muy muy mbay mbay di sama xarit di sama rakk euh, comme ni nga mel ci man wallahi yàlla xam na ko ñoom itamit Barham di sama doom di koo xam ku gëm li muy liggéey la di yëngu ci social ak développement ànd seeg Mawa Mbaye ak euh, monsieur Guèye euh, ñun vraiment pour fexe tout pour mu samp ndëndam moom ak Alaaji Cheikh Thiam ak Adja Ako Ndiaye pour ñu dindi métti bi nga xamante ni moom la waa kër Mbaye Fall di dund looloo ñu tax a jóg Mamadou mbay bég naa loolu ci lii ñu ma tuddee musuñ maa tuddee làmb c'est la première fois ñu tuddee ma ko ndax bii mooy première édition bi. gisee ambiance bi. ambiance bi neex na lool waaye nag ambiance bi lu ko dàq mooy ànd ak sama xarit bii nga xam ne mooy Mbaye Babacar dafa nekk nit bu baax nekk nit koo xamante ne il est très social di yëngatu ci jiite mouvement jàppal ma jàpp man ma jiite mouvement action solidaire ci commune bu Mbaaw Boy Virage ak Boy Diouf la Laye Ndiaye Boy Diouf ak Boy Virage attention Boy Virage daw na jël Boy Diouf Boy Virage ak Boy Diouf ñoom ñaar ñu ci saaku bi te Boy Virage ak ngemboolu xonq li moo ngemboolu ñu li mbokk yi Boy Diouf ak ngemboolu xonq li attention Boy Virage tël na ko tànn na ko maa la wax lii daa Boy Boy Virage na Boy Diouf maa la xamal loolu. attention jo jo Sa Thiès ñoom ñaar bëri nañu eh ñaari xale yi ñemeta nañu jo ak Sa Thiès jo fi mu jàpp baax na Sa Thiès fi mu jàpp waaye jo Sa Thiès daan na ko. oh da ko suruxal loolu la defoon loolu la turandoom defoon eh, ne ko relli fii da ko suruxal kañ dem jëli waay kañ. ay waay ana Assane Ndiaye waxal général ba Malika woon waxal yaay ba da doon na ma ay waay rek ay may dem mooy sa baay bar indi barxaam tuddee ko bis bi mu ak Amet Sow sama mag sama xarit sama papa sama ndijaay yal na yàlla defal ko jàmm mbokk yi ñaari xale yi ñu ngi leewaatoo ku nekk sa tànku ndeyjoor nga jiital bulldozer brise de mer bulldozer brise de mer attention attention daw na jël tànkam bulldozer brise de mer bulldozer daan na ko arbitre ba nee na daan na ko maa wax lii xale la daa ne ci yoon nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel xale la dafa nekk si yoon nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel xale la dafa nekk si yoon ndaanaan la bëre naa ki moom daan leen tey kii mu daan ah lamb wane na ni Brise de a ngi si yoon wi xale bi mi si yoon wi wane na ko Balla Gaye numéro 2 gis nga Brise de gis nga Brise de Mer gis nga bëre bi ñu bëre Balla Gaye a 2 loo wax ci combat bi seetaan nga làmb ji loo waaw nekkoon na combat bu neex nañ vraiment. Mm-hmm. ñu nekk ay xale. bëre nekk euh, seen métier ñu koy def respecté ko. Mm-hmm. ñu boole ñaari champion. waaye nag jëli bi rafet na. Mm-hmm. mbër bi teg na ko ci yoon Bulldozer nu mu tudd. Bulldozer Bulldozer. waaw teg na ko ci yoon. ëmb adversaire am. ba li mu bëgg moom ko. ba li ko. koo sàcc doole tuuti. Mhm. donc voilà. ok da koo sàcc doole. Mhm. boo tollee boo boo toog di seetaan combat yi dina lay fàttali bi ngay bëre Iba Mar waaw dina ma fàttali kay. parce que jaar naa fa. Mhm. jaar naa fa son premier grand combat man ak euh, Mame Gour Diouf la. waaw son premier grand combat. daf may fàttali. Ngour Diouf moom moo ëppoon doole moom moo suturoon moom moo gënoon diis moom moo ëppoon poids. ëppoon ëppoon la tour teg ci. moom moo ëppoon quoi. ëppoon la tour sax ci jamono boobu. waaw non ñoo yem parce que même même ay même adversaire lañu même même kii lañu. aussi tamit même génération lañu. ok donc loolu moo taxoon ñu boole ñu. parce que doon daan fii may daan fii. may daan fii ok waaw waaw waaw noonu la demee nag. après waaw. muy lu am solo mbokk yi dégg ngeen loolu waaye loolu ci jamono bi nga xamante ne nii ci lay bëre ci Iba Mar Diop la woon léegi dañuy ñëw ci période bii nii mais dafa am lu ñu ciy wane. dañuy wane Balla Gaye numéro muy dugg ci muy dugg si stade dafa am image bu ñu ciy wane ñu bëgg ko waxtaanee. balaa ñoo sori loolu ci waxtaan bi mooy Balla Gaye 2 buy dugg si stade ñi muy àndal. ñi gàngoor bi muy àndal groupe bi nga xamante ne mooy topp ci ginnaaw mm-hmm. staff bi Thierno Gueye. Aziz Aliou Ndiaye Baye Ndiaye. Mm-hmm. loolu lañ bëgg ñu waxtaan ci tuuti. sa mhm. diggante ak nit yooyu nga xamante ne bi nga dugg ci làmb ci say début lañ la gis ak ñoom. Mhm. waaw ginnaaw et puis sax ñu ngi waxtaan mi kon ni nga wax nii ci côté encadrement bi. Mhm. Euh, ndax nit moom amul lu dul estafam mbër amul lu dul encadrement ci côté ñi ngay nekkal. ci côté ñi ngay taxaw ñi lay taxaw. ci côté ñi lay tegu ci yoon naan la defal nii ak nii. tey Baye Balla boo seetee mooy bi école di Lithiam. mais am ñu ko ci accompagner am ñu ko jàppale am ay mbër yi nga xam ñoom laa àndal début sama début carrière ku ci mel ni Les ay Elton. ay ñoom Baye Ma Ndiaye ñu bëri mbër yu bëri école la. ok Aziz sama aussi tamit euh, mooy li ma waxoon sànq euh, benn journaliste. 2005 la ma fayal salle de musculation boobu Castor di ma jox passe aller retour. donc euh, ku ci mel ni Mbaye Diop Talla Meng. Karajo bu la neexee jox ma ko de. bu la neexee joxaale ma ko nii ñëw. ñoom ñëpp ñu daan ànd tout le temps maanaam fekk El Mali donc nekkul loo xam ne tey la. Hmm. lu yàgg la Thierno Gueye yàlla boole ñu. ñoom hmm. commissaire. staff bi dëgër ñi nga xamante ne ay ñoom njàkka doole moomul combat ñoom ñoo gën a bëgg combat hmm. moo tax man lépp li nga xamante ne rek moom mën ma ñàkk mën. dama ci teg suma bakkan loolu moo waral tey staff bi dëgër ñu suudee nag doon benn ku ci mel ni Pa Mama Andaw Ndiaye Api Sané ñooñu ñëpp dañoo macha allah staff bu bu tegu ci yoon la waaw suma rax suma frère Ama Balde ñun ñëpp donc ñoom sóoro ñoom xalilu ñoom ñoom Kor Ndiak ñoom Omar Gueye Baara Gueye Kiling Ewel Cheikh Mbacke ay ñoom Kabo donc estaf la boo xamante estaf bu bu bu am solo la ci sumay carrière yi nga xamante ne mm. mais dafa am ñoo xamante nag bon ñoom ay ay ay ay ay lañ ci carrière yi. Mm. waaw ay daanaan waaw ci ci may jàppale. ci jàppale bi waaw. Mm. ci ni jàppale. Mm. ay spécial la ñoo xamante ne spécial la ma leen tuddee bu ma leen tudd xam nañ seen bopp. Mm-hmm. waaw Balla Gaye 2 ak Thierno Gueye. nu mm-hmm. mu demee parce que dañuy gis Thierno Gueye ah. Mm-hmm. combat Balla Gaye 2 yëpp moom ak Thierno Gueye la. ñoom ñaaree ànd Balla Gaye 2 ak Thierno Gueye. waaw Thierno moo ma yar Thierno Gueye moo ma yar ñu bokk dëkk marché Sam yàlla boole ñu ñu ànd vraiment lu ma bëgg mu bëgg ko lu ma jàpp mu boole ko man jàpp ko donc ñu bokk ànd di liggéey muy sonn ci man lu ma ko wax ne lii laa bëgg fi ba kiri koro da koy def kooku euh, nit la boo xam ne ci man sori na loolu ci man vraiment waaw ci mënuma wax ci moom lu bëri ci moom loolu. ñu baale ma bëgg ñu delluwaat tuuti ci carrière bi ci début ci début bi. ci début carrière bi jaar jaar bi. Balla Gaye 2 bi ñu dugg si ci làmb ba fii. 2005 la woon. la dugg si ci làmb 2005 ak léegi. carrière bi Balla ñëwal na ci résumé ma ko waxtaanal ma tuuti ci carrière bi jafe-jafe yi surtout nga xamante ni nii dund nga ko ci carrière bi. waaw mënul ñàkk nag làmb moom nee nañu tout est début difficile. donc lu mënta ñaax moom faaw moom ndax boo nekkee xale yow da ngay gëm sa bopp. Mm-hmm. ci façon bépp nag. di gérer di ñafe di respecter say entraînement nekk ci bëggal ko sa bopp nga am ñu la ciy poussé. 2005 mm-hmm. ci laa bëri 5 combats ci laa bëri grand combat. ci sa première année sama première année dama amoon mbooloo na. Mm-hmm. teel a teel a gën a almier sama mbooloo. waaw muy ñëw ñu daan fee ñu daan bëri grand combat sax maa leen di gën a fees. bi ngay bëree combat préliminaire. combat bu ndaw parce que man dama mbapat. kon boo paree waan waa grand combat bi dañuy am problème. non man damay toog seetaan nag. ok mais sama gars yi dañuy jug dem mais damay toog seetaan man. parce que lamb dama ko bëggoon. ok dama jaar mbapat. jaar mbapatu Mbaye Guèye. Mhm. mbapatu Ibrahima Ndiaye. mbapatu mhm. suñu papa Boy Bambara. Mhm. Maxime Margane. ok foofu dama fa jaar maam laata may dugg ci lamb ñi ñi xam nañ ma. xam nañ indaale nga sa tur ci lamb. voilà. 2000 ok. doomu Double bi moo moo doon sama tour ok moo doon sama quarante moo nekkoon sama passeport. waaw moo ko doon doxee. mais nag dem naa ba liggéey sama bopp loo xam ne léegi Balla Gaye numéro 2 la ñuy wax. mais boobu turu doomu Double Less bi. Ah, am na am na am na atu bu mu la mayoon ci làmb ci période boobu. waaw doomu Double Less bi nga daan dégg amoon tur pour tuddee sama bopp benn nit genre doomu Double Less bi nga ñuy dégg. doomu mm. Double Less bi mm. est-ce que est-ce que est que est-ce que yomboon na ak doomu Double Less bi ngay dégg tur boobu doomu Double Less bi charge bi est-ce que duul woon diis parce que c'était pas évident nga nekk doomu mbër aussi nga terminer ak nga ñëw toll fii ci niveau bi ndax bari na ay doomu mbër yoo xam yegg si wuñ fii te ñoo la jiitu ci làmb. waaw ah, mais yombul xam nga yàlla mooy jaare ay nit ci ay mbiram yoo xamante ne nit fu mu war a àgg rek kenn mënu ko tee àgg. Mhm, mhm. Mm, nekk naa doomu mbër mais teewul dama gëmoon sama bopp lépp lu mbër di def muy coono. muy entraînement muy sport muy récupérer dama sacrifier suma life sacrifier suma bopp tënk sama bopp ci benn affaire. Hmm. liggéey lekk naan tëdd nelaw. ok parce que dama amoon objectif. ok yi ma bëggoon. Hmm. dama dugg ci làmb objectif bi ma njëkk am mooy nekk roi des arènes. bien vrai que maa ngi bëri ay combat ndaw. Hmm. mais sama bët teggi na foofu. loolu nga gëmoon. waaw li ma gëmoon la nag di ko doxe di ko waxe di ko jëfe may xëy di entraîner trois fois ba fois aw ma fenn soxla géej salle musculation contact boxe. loolu rek ngay def. géej salle musculation contact boxe soo bare nga dem tëddi nelaw ok carrière bi di dox. carrière bi di dox ba Balla Gaye numéro 2 dugg ci tournoi. CLAF. Balla Gaye numéro 2 bi mu dugg see ci tournoi CLAF bi nag foofu la ñu gën a xam Balla Gaye parce que xam nañ ko avant muy ñëw ci CLAF bi indaale na na aussi turam ci CLAF bi mais ci CLAF bi nga bëri combat yoo xamante ak adversaire yoo xamante ne nii ci nga wane beneen affaire CLAF bi ci carrière Balla Gaye 2 waaw CLAF bi 2007 la woon 2008 presque deux ans de carrière rek nga dugg ci tournoi ok parce que noonu maa gënoon nekk tànk ci ci sa poule waaw Ousmane Diop ku ko xam-xamoon ne ndaanaanam. bu mag mun bëre. Mhm. ko di fay jamono jooju musul daanu. Mhm. macha allah mu nekk ndaanaan. waaw ku mënoon a bëre. Mhm. Mbaye Diouf waxaale ma yoo xam. déedéet. nekk Fass. di daan ay ponkal di daan ay morom. di daan ñoo xamante ni ñoo ko doon junni yoon. mu ci dugg ñu bëri nañ ma war mu ci dugg parce que man xaale laa. dafa teel na waaw. waaw mais ngëm-ngëm bi ma amoon mooy li ma la wax. bëggoon loolu li may def. ma ne bàyyi baal la ki ñii maa leen yàlla dogal nag ma dugg ci. Hmm. liggéey ci li ma war ak école de lutte Balla Gaye hmm. ak sumay ma ak sumay saf. ñoom hmm. ñëpp jàppale ma. ñi di ma fayal salle may dem ñu di ma fayal box may dem. dem nañ ba ñoom xaalis bi may gagné amul leen importance. ok honneur mooy ma am bëri di am ndam. waaw géej waay am champion. man mii di wax xaalis bi intéressé moom li ma intéressé woon moom bëgg a nekk champion. ok donc yàlla dogal nag mooy man benn gis-gis ay gëm. ma liggéeyee lekk naan tëdd dama war a bëri ji incha allah yàlla may ma ndam. Hmm. moo tax nag combat yëpp ay jël yi rafet rek la ma ci yàlla jox ma ci daan ay mbër. Karajo préparel ma préparel ma toujours Balla Gaye numéro 2 léegi ci kanam parce que il faut ñu waxtaan ci déggam. Hmm. parce que Balla Gaye numéro soose la xaw ma lan la. Hmm. ba pare mën a feccee nii loolu daf maa jaaxal loolu dinañ ci waxtaan léegi ci kanam. mais ba léegi préparel tous bi mais léegi ba tey ci carrière bi. ci biir classe bi daan nga kolif mhm. kenn werante wu ko mbot bi rëy na mhm. daan nga Mbaye Diouf da jaay nga ko doole ramassé nga ko mhm. ok mais technique bi nga daanee Ousmane Diop Balla Gaye 2 boobu da fekk ngay def gréco-romaine wala daf da nga jàng gréco-romaine wala nu mu demee waaw man jànguma woon nag parce que tey boo seetee jëli man sax bi ma gën a kontaan mooy jëli ma daan kolifay ah bon waaye xam nga lu tax lu tax mooy dañoo xeex man ak moom Hmm. ñu jàppante. Hmm. ci kaw jàppante boobu mu yaakaar ne dama koy mbot te moom préparer na pied gauche bi. waaw donc ma ma xàcc mu ngi mel ni tey ma xàcc bar rek nga yaakaar ne ko dama pied doo ko pied gauche donc ni ma defee jeu de jambe. nga contre pied ko. waaw ni ma defee jeu de jambe yër na ko gos yër na ko droite mu taxaw di xaar pied gauche bi. Hmm. ma mbote ko pied droite. waaw donc mooy. suma ans moo ko mbot ba léegi mhm. mbotu ma ko sax. waaw dama ko mbot dama ko braqué rek. Mhm. ma ànd ak moom ak suma ans. donc loolu moo ma gën a neex ci combat ci kalaaf boobu. ci kalaaf boobu. en même temps musul woon daanu. musul woon daanu yaa ko njëkk a daanu. voilà yaa njëkk a daan qualifié am na yeneen mbër yoo xam sax yaa leen njëkk daan yooyu yëpp dinañ ci ñëw mais contre Ousmane Diop muy bii ñuy wane. Balla technique bi nga daanee Ousmane Diop parce que boobu boo fàttalikoo su ma juumul Père Mbaye Gueye moo toog ci plateau bi. mu ne mu gëj na gis façon mu bëree bii. technique boobu Balla. waaw technique bi doon la rek. ok xam nga mu nga nekk doo mbër te doo mun bëree. Mm. mu nga nekk doo mbër doo mun dara. mu nga nekk doo mbër yàlla jagleel nga mun bëree. Mm-hmm. techniquement loolu dama doon bu gën a pire boobu sax Ousmane Diop ni ma ko bëggoon daanee. yàlla moo dogal antul noonu. ok mais dama bëggoon jël tànk bi capté ko ba jël tànk bi moom pivoté ko ànd ak moom roulé doog ko daan. mais dama koy këf tànk bi moom champion la mu sànnee ko donc tànk bi échec ma jàpp ndigg li ànd ak moom ci rotation bi. Mhm. daal koy wéer sama bopp daan ko. ok génn nañ ci kalaaf bi. Mhm. génn nga ci avec honneur. génn nga ci Balla Gaye ma 2 léegi ñuy dem ba 2000 ba 2011. Mhm. wala 2010 sa digganteeg Modou Lo. foofu la carrière bi nag daanaka nekkee ci benn niveau. ci la cachet bi yokkoo. ci la popularité bi gën a yokk 2010 ci la làmb jaay boppam. Balla Gaye numéro 2 moo ko jaay ak Modou Lo. niveau boobu Balla Gaye jamono boobu lan moo nekkoon secret bi ba jamono boobu lan moo nekkoon liggéey bi. liggéey bi mooy mooy li may wax rek objectif nit ba mu objectif mënoo liggéey loo xamante ne day weesu sa njot objectif benn bi rek la amoon li muy doon gis mooy nekk roi des arènes teewul ma jóge ci kalaaf yi dama continuer suma liggéey. Mm-hmm. nekk ci nekk ci xamuma dara gisuma dara lu dul bëgg doon champion bëgg a doon roi des arènes. Hmm. te loolu caaxaan mayoo ko en même temps waa Géejawaay namoon champion. Hmm. ay Mor nekkoon fa ay Doubalas nekkoon fa. Hmm. suñu fa. léegi ñu gëjoon dégg aussi tamit mbër ca Géejawaay. waaw nag waa Géejawaay. namoon champion. moo tax bu ñu gisoon champion bu mel ni man donc ñu gis ma nag accompagner ma ànd ak man. ñu yéene ma nag. donc loolu moo waraloon tey sama gën a yokk jom. Mhm. ndax bu ma doon entraînement école ba day dem ba fees dell kenn dootu fa xaj. Mhm. donc nag mooy pousse di pousse di pousse ba yàlla déwén combat boobu ngay wax 2009. Mhm. entraînement yi yokk. série bi gën a yokk. ambition bi gën a ñëw nag aussi. ci moment bi nga jëlee combat boobu. ci jafe na ku mbër jëlee ci noonu combat. parce que da nga daanu ci Eumeu Sène. Mhm. bis bis bi ngay bëre ak Eumeu Sène ci la Modou Lo daan Balla Diouf. Mm, waaw Balla ñëw samp ndënd bi ci sa kanam. yow yaa nekkoon cible am. Ah. boobu. <laughs> <laughs> loolu loolu la loolu la def. ñëw samp ndënd bi nga génn ci Eumeu Sène daan la. Mhm. nga jël Modou Lo. Mhm. ak fii combat bi tolloon nga jël Moustapha ba pare nga jël Modou Lo. ak fi combat bi tolloon. sa combat ak Modou Lo fi mu indi làmb. waaw 2010 nag yóbbu na làmb fa sori. waaw. yóbbu na li gën a tax làmb ñi ñu bàyyi ci xel. du ma ne man la wala Modou Lo la mais 2010 combat boobu noonu bokk na ci tax sénégalais yëpp bëgg làmb. Hmm. tax na sénégalais yëpp di suivre làmb ndax combat bi moo toll ni mel donc vraiment bon. même bu siiwul bu siiwee à cent pour cent am nañ ci cër. Mm-hmm. tax nañu suñu génération bëgg bëri. Mm-hmm. tax nañu aussi tamit kon ni ñu amee ambition comme man taay jeune ma nekkoon sama. Mm-hmm. idool. bu daan gis kontaan bëgg bëri. donc ñun bokk nañ ci loolu ci ci moment boobu nga xam ne 2010. ñëpp 2011 ñëpp bëgg nañoo bëri. donc combat bi nekk combat bu mag indi fa ay hélico. indi fa ay décoration ay pétales. créer ay t-shirt. ay photo ngeen dem fu ne ci senegal dem fu ne ci Sénégal. Mhm. signature yi signature yi. donc ñëpp bàyyi xel ci làmb jooju. Mhm. yàlla defal ma ci ndam nag. ma mhm. jugee fa nag am fa yokkute. am fa roi des arènes. am fa roi des arènes. mbokk yi dañuy ànd ak yéen ñu dem seetaani tuusu Balla gay numéro de su baaxee ci Karajo. Karajo bu baaxee boo dama soxla tuusu Balla gay numéro de ñu ñu ñu ñu ñëwaat ci waxtaan wi parce que Balla Gaye numéro 2 muy dugg stade rek beneen affaire la su baaxee ñu dem. waaw kon ba tey ci kanam tuuti dina dina dina ñëw Omar Sakho. Balla Gaye numéro 2. nga jóge ci Modou Lo. teg ci Baboy. jour bi ngay bëreeg Modou ci la baabooy dugg see saat moom tamit. ñëw ñëw dem ci cumikaayu Modou Lo. <laughs> après nga sa copain. nga teg ci Baboy. teg ci Tyson. Mm-hmm. dugg ci ni mm-hmm. Baboy Tyson Pikine la mais idole bi Tyson la. Mm-hmm. pourquoi bëre ak idole bi. waaw mais ku bëgg a doon champion da ngay doon champion. Hmm. ku bëgg doon champion. Hmm. da ngay daan champion da ngay daan champion laa wax champion. ok mais mënoo bëri daana benn champion bëgg a bëri ak champion day metti. ok parce que man tey yaa ngi ko yaa ko wax. Hmm. pourquoi idole beeg bëri. te suma Tyson demoon na ba sponsor sax ñu koy maa moom dañu doon déggante téléphone di waxtaan. ok mais ba suñ combat taxawee ci lañ arrêté affaire yooyu yëpp. ba yàlla def ñu bëre ba pare tey laa ko gën a jàpp tey la ma gën a jàpp tey la ñu gën a waxtaan téléphone moom mais Balla Gaye numéro 2 bëre ak idole bi signature contrat yi. waaw des fois sax idole bi gedd signature contrat yi. dem. ndax Balla Gaye 2 ni mu doon bousculer adversaire am du idole du Tyson kase. Mm-hmm. bari na ci sa ay adversaire ñoo xam dañ doon am problème ah. Mm-hmm. ndax Balla Gaye ni muy bousculer adversaire am lu tax nga bousculer sa idole noonu ci biir signature yi. mais mais lamb boo ñëwee da ngay créer sa yëfu bopp. ok donc man dama ñëw rek automatiquement li ma ma créé sama yëf bopp signature bi dama la may jàmm day neex mais ci signature bi rek la yem. waaw xam nga. Hmm. mais il faut que nag combat bi neex yow da ngay jaay combat bi. Hmm. mais du càgg ne rewand la wala genre mais ñu bëri nag aussi dañ doon réeré mbir mais après la ñuy doog comprendre. waaw que làmb la woon. waaw la dafa war a neex. waaw ci bi day neex. Hmm. loolu moo tax ñun ñëpp gën a bëgg làmb. léegi nag signature bi gars yi événement lay doon. Hmm. parce que boo ne léegi Balla gi am na combat signature bi la njëkk a parce que événement la. événement la voilà. waaw donc loolu bokkoon na luy. parce que période boobu bari woon na li ñu doon. luñ doon jiiñ Balla baala moom de yar gi dafa xaw a des tuuti baala moom da ngay waaru <laughs> boo waxee signature am day wax lu ëpp mais boobu loolu noo ko doon déggee non dara affaire la rek jàpp naa ne sportif laa. Mm-hmm. lu nekk laa war a mën a dëkku ok lu nekk lañ ma war a mën a waxal. Mm-hmm. yii doon yii du am te ñi nga xam ne du ñu xam Balla duñ ko gis. Mm-hmm. mais ñu ma xam en cent pour cent xam nañ ne man mais lu ma noonu mais juste rek xadar la boo xamante ne <laughs> bon yàlla moo koy def ci nit. ok voilà. Balla Gaye 2 daan na Tyson. Mm. adversaire bi léegi ñëpp xam nañ ko Yékini la. 2012. waay Balla Gaye 2 taxaw na. Balla Gaye 2 sañ-sañ bi. Balla Gaye de ñëwal ma nettali ma sa diggante ak Yékini yow lañ tey àdduna yow bëgg a découvrir loolu loolu loolu loolu gën a tax sax ñu def émission bii mhm. nga waxtaan lañu ci loolu parce que raar na ñu lay dégg nga ñuy wax ci loolu nettali ñu sa combat ak Yékini préparation yi tolluwaayu làmb jooju waaw xam nga mooy li ma la wax nee naa la bu muy dugg ci làmb que dama amoon objectif pour nekk roi des arènes mhm. yàlla def ma waroon jaar yëpp ma jaar fa mu des seul mbër mhm. muy roi des arènes donc ma ne man li ñaan yàlla suñu borom yàlla jox na ma te nekk naa roi des arènes avant mooy bëri moom boo neex nga laaj Thierno Bey lu tax. déggoo ma ne li ñaan yàlla. Mm-hmm. am objectif bi nag. Mm-hmm. teg ko fu sérieux. Mm-hmm. di liggéey ba àgg foofu. kon man bu ma jàkkaarlook roi des arènes wala ñu boole wala ñu suñu contrat bi xam naa ne dama koy daan. est-ce bu baax maa lay dégg avant may dugg ci làmb maa lay dégg bu baax. yàlla dogal mu continuer ci ba mu ñor. Hmm. man pour man nekk naa roi des arènes te suñu borom noonu la def léegi nag combat bi taxaw coow li bëri wax ci bëri xam nga ñu koy dund nag Sénégal yi ko dund mu nekkoon événement bu bu doyoon ci Sénégal te donc loolu mooy làmb làmb bu demee ba amatul coow amatul wax pour man nekkatul làmb. Hmm. làmb coow la baaxoo mais lépp rek ci es la yem Mm-hmm. signature yi du àgg. Mm-hmm. xeex bi bëri. Mm-hmm. wax ci bëri. ñaari mbëri kii jot fii wax fii. ci jot fii te signature boobu benn signature lañ jot am muy RTS lañ ko amee woon. waaw benn yoon ngeen mos a toog wax. yéen ñaar yéen ñaar yéen des yëpp àggul. Radisson la tàmbalee. xeex ba ñu ne Sa Thiès ak Yékini Junior la ñu ne Balla Gaye jaar nii moo def lii coow li bari woon na Balla ci période boobu sa diggante ak Yaxya léegi ñu ñëw man li ma bëgg a laaj mooy gëm-gëmu Balla gay 2 parce que à chaque bu ñu musaan bu mu musaan a dégg Balla Gaye 2 danaan Yékini maa ko mën te bu arbitre bi sifflé laa di wan ni maa ko mën lu tax Balla doon gëm ni Balla lan la da nga gis Yékini mu def loo da nga def da nga def lu Yékini mënul da nga waaw c'est-à-dire que xam mënoo nekk doomu mbër sa papa nekk champion nekk roi des arènes bañ koo woowee seigneur de l'arène mm-hmm. yow nga war a nekk xale bëgg a jël sa tànku bàyyi te yow doo ci dekk coono yooyu donc gëm gëm bi la ambition bi la ma xam ne tey man li ma gëm fekk si na ma mooy dama bëgg dara bàyyi lépp ngir loolu yàlla jox ma ko moo war a bëri moom gëm ne man maa ko mën ma gis ay qualité bëreem ak man sama bëre du ñu ànd te du ñu bokk moom day xaar te man damay ñëw te loolu dama koy bëgg donc ma xawal déplacement am gauche ak droite ma ne man bu ma bëriwul Yékini mënumaa daan te bu ma bëriwul mënumaa daan. soo bëriwul mënu la daan. waaw bu ma bëriwul moom mënumaa daan ndax du ñëw. waaw man maa koy fekk. te bu ma ko fekkee mu ma daan ndax lu mu teg mën naa ko teggi. Hmm? waaw. boo seetaanee combat bi. waaw maa bëri bu bëggee bëri ma xañ ko bëri. Mhm. man maay bëri. saa yu bëggee ko bu baax jafe te sax jafe na. ci seen tolluwaay ñu gis xeetu bëre boobu moment am poids. waaw loolu yëpp nag liggéey ko ci rapidité ak école bi jàppale ma encadré ma donc ma ànd seeg staff diis géej waay gi ñëpp génn encadrement bi ñëpp génn. Mhm. ñëpp fàtte lépp. Mhm. donc vraiment ma ma ñu gëmoon ko nag. Mhm. géejawaay gëmoon ne war nañu mën a roi des arènes. Mhm. yàlla dogoo ko nag et ñu sante ko suñu borom. daan ko jël boo xamante ne ku mu sa daan nga daan ko ba mu dalee bëri léegi mu yàgg. kenn ñemewu ko. man maam fit fit ñoo xamante ñëw rek ne man maa ko mën a pii. voilà. quinze ans d' invincibilité nga jeexal ko mhm. mu nekkoon bés boo xamante ne ni l'histoire du ko fàtte mhm. parce que li jaar li xew ci bis boobu bari na ci culture ci culture du Sénégal li xew ci bis boobu te gis jour boobu gis naa lu garaaw Omar mhm. gis naa nga tuus ba pare Yékini di tuus Thierno Gueye taxaw ne du fi tuus. <laughs> Thierno Gueye taxaw ne waaye du fi tuus Adama Ngom tëggal. pourquoi pour lu tax lu tax ngeen defar def. stratégie loolu loolu teetal la rek xam nga <laughs> exemple tey mu ngi ne lu tourisme naa ko yàqaale loolu tourisme nañ ko def loolu lii donc après maag moom sax ànd nañu tous ma jaax ya ànd nañu tous après kenn ku nekk yëkkati salon ba nu ñuy bëree ñu ngi kaf ñu ngi rek donc moom mu xam ne aussi tamit euh, li sport rek la mm-hmm. te loolu moom solo après ba ñu bëree aussi tamit nekk ci jàmm ak coow yi amoon ci làmb ji yëpp bi ngeen bëree ba pare coow yooyu yëpp jeex na foofu laa yam a dépassé làmb après làmb bokkuñu ambition bokkuñu fu ñu war a dem wala bokkuñu fu ñu war a dajee ok donc jàmm rek la ñu war a mën a yéenante ok vraiment et puis nit ku baax la mm-hmm. voilà ñu koy ñaanal jàmm mm-hmm. Mm-hmm. période boobu Balla Gaye 2 di macha allah di di rajaxe Sénégal ñuy def ay ay caravane di dem Casamance <laughs> affaire yi di neex ñuy def Balla Gaye di ah, macha allah di ànd ak partenaires yi affaire yi doon neex nga ci doon dox aussi dox bu am solo mooy la paix en Casamance liggéey boobu foo ci tollu waaw liggéey boobu rek mooy ba léegi rek mooy sant hmm. ndax euh, métti woon na trop nag ñun ba ñuy dem Casamance waaw donc suñuy moyens lañ daan jël di ko ci def hmm. yow xam nga nu mu demee dëgg la ndax liggéey bi dañ ci daan bokk hmm. télé yëpp daañu ci bokk. dëgg la rawatina yow dama la yëpp. Mhm, waaw mu defee benn affaire dama la jugal nga def lii wala ñu def lii. dëgg la donc ñu toll même génération nag. Mhm. yàlla jàppale la et puis may la jàmm. Mhm. ñu ci doon dox ay jàmm ay jéego. boobu Casamance metti woon na. waaw te ñëwee fa dugg. dëgg la mais mu neexoon trop nag. doomu Casamance bi ñëw di def la paix en Casamance. bu ko keneen defoon mënoon na am gàcce. Mhm. parce que mënoo dëkk ci ci dëkk bi te defaroo dëkk bi. Mhm. mënoo doon doomu dëkk bi te defaroo doomu dëkk bi. Mhm. mooy man samay waajur Casamance la. donc ma nekk war a nekk Casamance war fa dox jàmm. donc ma am ci fier nag. et ñu ci dox jéego di ci dox jéego ba ba ma leen ne. bis a ngi ñëw ma ànd ak président. ñëw fii gën a dox jàmm te yàlla dogal na loolu. ànd naag président ñaati yoon pour jàmm ci mhm. ànd ak président pour Casamance ñu mën koo liggéey mhm. jeunes yi mën a liggéey mhm. ñu xool ni ñi nga xamante ne Casamance bëri na loo xamante ne macha allah lu am solo la fa nekk donc vraiment ma am ci contentement ma am ci mbégte yàlla dogal nag après bon ñu tegalee deux ans yoo xam ne. léegi loolu ci loolu ci loolu <laughs> ci loolu la ñuy dugg parce que Balla Gaye 2 période boobu macha allah liggéey bi amoon na solo. caravane yi gis nañ lim yi nga xamante ne dox na ko ci la paix en ñu la ciy félicité. Mm-hmm, en tant que sénégalais parce que liggéey nga ci lu am solo loo xam ñun doon nañ fekkee ah. mm-hmm, mm-hmm. mais ñu jóge ci loolu Balla Gaye bëre ak Tapha Tine. Balla bëre na ak Tapha mais sportivement parlant quoi. forme bi bëre ak Tapha du forme. jugee ci loolu Balla Gaye 2 bëre na ak Bombardier mm-hmm. forme bi bëre ak Bombardier kenn xamul lal la mm-hmm. ñu jugee ci loolu Balla Gaye bëre na ak Eumeu Sène mm-hmm. li bëre ak Eumeu Sène tane na tane moo mooy ñetti combat yëpp muy ñetti combat yëpp yoo xamante ne amul forme amul résistance amul puissance boobu bon expliqué ñu <laughs> nous sommes en direct du lu ñuy expliqué nous sommes en direct sur la 2STV mais dañ ci sant suñu borom xam nga tey boo xoolee hmm. carrière Balla Gaye bon nga xool ko ni mu ñemee entraînement. Mhm. ni mu ñemee indi forme. donc ci ñetti combat yi nga wax nii. Mhm. commencé am ay leex commencé am ay biir. Mhm. kanam bi commencé neew yi xam nga. tànk yi ñu ci bëri dañu yaakaar ne sax ay anabolisant laay naan. moo tax bu ñu ko wax aéré daf may jàpp. ñu naan entraîné tout ñu naan léegi peut-être àgg na fu mu war a àgg tootu ko def. dootu ko yegg na au sommet mi ngi nooyal. or ko yàlla xam na ne. billaahi wallaahi wa taalaahi demul noonu. ma amoon feebar nag bon di ko sooxaale di ko sooxaale. ok nekk ci nag yàlla suñu borom nag dimbali ñu xam nga ba ñu xamee ne nag lii du continuer il faut ñu toog faju nekk suñu bopp donc dañoo toog faju nekk suñu bopp. ok ndax ku xam Balla Gaye de gis ko muy indi koll wala ku xool Balla Gaye de hmm. tànk yi dara néew. ci xool Balla Gaye de yaram bi néew. donc et puis mu xees. Mhm. donc là quelque chose quand même. Mhm. nit ñi def. Mhm. après ñu waxtaan ak mbokk yi SAF ak yëpp ñu toog lëlu bu ñu lëloo nag macha allah. lëlu liggéey. ah ñu liggéey. lëlu liggéey lëlu boo xamante ne nii tamit def na suspense au Sénégal. sa Balla Gaye 2 dañu woon dafay dem gàddaay yi. Balla Gaye dem. ñu mu mu def sax benn promotion ci INSEPS bu France. Mhm. ñu leen di nuyuwaale bu baax a baax <laughs> suñu père taalibe sa taalibe sëñ Fall taalibe Xaadim Rasul mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mu def benn promotion bu am solo ci INSEPS bu France. Mhm. liggéey bi foofu. naka la demee woon parce que Balla daf ci jógee. ñu gis man may gis Balla Gaye bi bëre woon ak Mbaye Diouf. bi nga ñëwee loolu laa gis. waaw kon ni nga wax rek ba yàlla dogalee ñu gàddaay yi mooy li ma wax rek. Aziz woo ma ak SAF ñu toog waxtaan combat Gris mhm. ci lañ njëkkee yàlla doog ñu waxtaan ba ñu waxtaan combat bi jege ñu bari combat bi ba après nag waroon dem MC sans Paris donc mu ne ma booy xale day ñeme coono xale day ñeme liggéey te li ci am solo boo liggéey kenn mënu la donc mu génne mooy teg ci kaw taabal bi na ma demal nga liggéey mhm. ñu waxtaan ci kon ni ñu toogee nii rek ah man moom appui xam nga ñu waxtaan ci. ok yàlla def ma dem INSES Paris liggéey fa lu métti liggéey lu ma xamul woon. Mhm. liggéey lu ma gisul woon. Mhm. donc lekk bi di jaar yoon xam nga médecin bi di jaar yoon. <laughs> boxe bi di jaar yoon. Mhm. lutte gréco-romaine bi di jaar yoon. ok physique bi di jaar yoon. ok donc lépp rek dafa war a jaar yoon même lekk gi ngay lekk. ndox gi ngeen naan lépp jaar yoon. Mm. heure bi nag ngay tëdd heure ah. di yeewu ci centre bi nga dëkkoon. non ci centre bi laa nekkoon nekk presque tey mën naa ne internat laa nekkoon. donc mais Balla INSET bu France nga da nekk fa internat loolu c'est des millions de baala waa moom moom mooy mooy li ma la wax yombul parce que lépp loo fa def danga nga koo fay. yow ba ngay booy dugg ci booy inscrit da ngay fay sa appartement da koy fay. Hmm? coach boxe bi danga nga koy fay coach musculation bi da koy fay coach lutte gréco-romaine bi da koy fay médecin bi da koy fay. Hmm. donc loolu yëpp nag Aziz moo ko def. ok génne mooyam teg pour mu mun a ñëwaat en forme waa Guédiawaye gi yëpp kontaan ci li mu def ak képp kuy fan sa bala Gaye numéro 2. Hmm. te bëgg Balla Gaye numéro 2. donc vraiment bàyyi am ci cër boo xamante ne. toujours rek mooy wax Aziz euh, nañu jàppale suñu frère parce que moom la ñu am. Mhm. rawatina suñu papa Allé Baye Allé mhm. togg ak ñëpp ne ko Aziz kii moom nga am tey moom nga am ëllëg dama bëgg combat bu mu mun a amati na ko jàppale. donc suñu yaay mère Khoudia Diop tamit noonu famille bi ñëpp toog mu wax ko li wax. Mhm. moo tax mu si doon sonn. bu ma may combat mu ci datee coono yi nekk. waa mais rëccu ñu si tamit li mu doon demee INSEPS ok hmm. bi nga dem INSEPS bu Paris. nga ñëw indiwaat indi leneen. Hmm. bi nga ñëwee gaa yëpp ne waaw. Hmm. lii lañ soxla woon. nga ñëw liggéey bi bi nga ñëwee fii gisuñu gisuñu. Balla Gaye bu bu bu changé. bi jóge INSEPS rek lañ continuer gis da nga ànd ak ay professionnel ñëw. wala da nga ñëw fii ñu jox la benn programme boo xam moom nga war a continuer. waaw ba may ñëw aussi tamit ànd naag suma papa. Karl. taalibe sëñ Bamba Xaadim Rasuul mhm. donc mu ñu ànd ak man ci liggéey bi continuer man ak ci programme bi nga xamante ne moom moo nekkoon IMSA Paris mhm. moom laa continuer mhm. ba nii may di entraîner nii may wax yow moom lay continuer ok parce que ay programme la yoo xamante ne moom la war a suivre. ok tout le temps ma ci war a nekk. tout le temps ma ci war a entraîner. ok voilà. ba léegi yaa ngi topp programme INSEP. moom nag laay topp. ah. muy loo xamante ne ni lu am solo la loolu li war a mu demoon INSEPS c'était pour préparer son combat contre mhm. Modou Lo combat boo xamante ne nii biir meek la deuxième fois la war a am mhm. deuxième fois bi mu war a am nag la làmb tamit am fu mu toll mu am fu mu ko war a yóbbu te aussi gis nañ fi nga xamante ne foofu la ko yóbbu maa leen ko dig léegi tuusu Balla gay numéro 2 karaajo baax na wala baaxagul pour tuusu Balla Gaye numéro 2 bu fekkente ne baax na baax na rek jox ma ko ñu seetaan ko léegi léegi. waaw kon ci kanam tuuti. kon ci kanam tuuti ñu ñëwaat bala Gaye numéro 2 ak Modou Lo. waaw combat boobu moo war a indiwaat làmb. Mhm. taxaw na Père Gasson moo ko taxawal. ñu ñëwaat ci combat bi ñu ñëwaat ci jaar ji ci préparation combat boobu Balla Gaye numéro 2 ak Modou chaque fois coow day am. <laughs> chaque fois coow li day gën a bari ko contre sax Yékini. lu tax. waaw mais génération bi moo toll ni ni mel. ok génération bi moo toll moo toll nu ni mel bon soxla leen aussi dayo yi macha allah yàlla def euh, euh, ñu tolloo wala ku ci ëppale sa moroom donc voilà. Mhm. nit ñu daal bàyyi leen xel. Mhm. donc loolu moo waroon tey saa ñu tasee day cool yi day bëri. Mhm. wax ji day bëri. saa bi day fees amatir yi dañuy wuy si. donc voilà moo tax ñu boole ñu. ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim. génn ci alhamdulilah rahmaani rahiim. Mhm. voilà mu am benn wax bu ma marke ci seen face to face chaque jour. Mhm. dama la ko doon bëgg laaj mais dama koy fàtte à chaque fois xam naa mi ngi mi ngi soog a ñëw sama xel nii mooy Balla dafa ni woon Modou Lo yow yabuloo ma say supporters ñoo ma yab. Mhm. lu tax wax boobu da ngeen am loo dund lu génn làmb loo xamante ni nii dafa am nu mu demee wala lu tax yabuloo ma say supporters ñoo ma yab. maanaam. yow da nga ni Modou Lo yaboo ma say supporter yow say supporter yabuñu ma yow yaa ma yab. wala nu mu demee noonu. wala nu say supporter yabuñu. yabuñu ma yabuñu ma. waaw non yow yaboo ma say supporter ñoo ma yab. ok lu tax moom yabu la. waaw làmb la rek xam nga dañoo def contrat. kenn ku nekk wax loo xam si nit ki. Mhm. wala lépp lu nga xamante ne war nañ ko waxante rek ñu sékk ko ñu waxoo. ok loo xam ne amul dépassé quoi. donc loolu day loolu bu ma waxee day bëggal samay supporters. ok dañ ci am kontante. ok dañ ci am confiance. te automatiquement day joué ci Moodu. Mhm. Mhm, moo tax ma ne du dara. ngeen ñëw ci biir géew bi arbitre bi sifflé na Balla gay de dox na ci kaw Modou chaque jour bu arbitre bi sifflé da ngay dox ci kaw Modou lu tax. mais làmb bu arbitre bi sifflé da ngeen war a daje. mais Modou Lo tu es le seul lutteur buy dox ci kawam Balla Gaye numéro 2. ah peut-être euh, yàlla moo dogal may dox ci kawam rek. mais man moom wax dëgg yàlla képp ku ma xam-xam ma bu at bi siflee maa ngi kaw loolu baa ngi daw nettali ma ni ngeen bëree parce que damay bëgg nga nettali ni ngeen bëree. ma commencement bi kenn eh, jàppante bi nga man. Karajo indiwaatal ma commencement bi parce que nee na wanu ko commencement bi jàppante bi laa ko wan. Mm-hmm. indiwaatal ma commencement bi ñu waxtaan ci tuuti. Mm-hmm. su baaxee ñu ñu ñu dem arbitre bi sifflé na léegi baax na ñu commencé arbitre bi sifflé na. arbitre bi sifflé na. Ah, maa ngi léwtoo gauche droite. dox gauche latéral droite. bon dox naa ci kawam. Mhm. door ko gauche droite. Mhm. attaqué ko. Mhm. mu daw ñuy xeex gauche droite ma dóor ko benn coup mu xaw a rëpp. ñuy pompante dóor gauche droite gauche droite mu daw jàpp ma. jege naa saako yi ma kor ko di dóor épercule épercule épercule yoo xam ne jeu des jambes laay def kon ni ma ko doon jàngee MCS. Mm-hmm. di dóor di déplacé wu di xool nit ki. Mm-hmm. te li ma koy dóor yëpp maa ngi koy xool xool nu muy def moom. Mm-hmm. dóor di ko xool di ko dóor di ko xool après mu jege saako yi. ba ci yàgg fi nekk nii maa ngi koy taxaw di ko déglu teg ko nengeñ pour mu écarté wu maa ngi dóor gauche maa ngi dóor gauche maa ngi koy xool teewul maa ngi sóoraale loxo bi nga xam mooy droite bi. ok ah. donc mooy gis nga loxo baa ñëw. waaw maa ngi def jeu. Mhm. bi may jàng IMCES mooy dóor esquive dóor esquive genre demee noonu donc jàppante ni actuellement bu bëggee génn saako yi ñu ngi jàkkaarloo ni maa ngi koy xool di ko bougeloo di ko yëngaloo jege na saako yi. Mhm. donc voilà. ok léegi. après ma daw. fàq ko ëmb ko fàq ko teg euh, deux appuis ëmb ko ba mu ñëwaat. Ah. mu ñëwaat Balla Gaye bi mu bloqué. bi bi charge bi sonal na ko. waaw waaw loxo bi bàyyi na. bàyyi na. donc waaw jàpp naa ñaari ngeen bi yëkkati ko. daal koy biij. làmb ji jeex gaay ne gaay ne Sénégal Balla Gaye moo fi dàq bëre parce que. Mhm. action bi Modou Lo di ñëwee mu bloqué tànk bi ak loxo bi action boobu. Mhm. loolu mbër mënu ko. action yooyu. waaw loolu mooy mooy li may faral di tooñ gaay naan leen. Mhm. dama leen dàq bëre kon Messi gën leen di jantal kon euh, Chris mooy mu mooy bu ñu la passé bal profondeur da nga koy teg plat de pied. Mhm. yaa ngi may déggoo dégg. maa lay dégg bu baax. <laughs> bu ñu la passé bal profondeur. waaw donc boo demee ba jublukaay da koy teg. plat de eh, pied plat du pied. parce que ay. non ñëw rek doon mu maa la wax lii. donc noonu la demee. Ah, <laughs> muy loo xamante ni nii lu am solo la. Eh. Balla Gaye 2 na ci kombaam ak Modou Lo tag Modou Balla Gaye dafa daan Modou ci biir stade bi. la ñu annoncé combat Modou Lo ak Ama Sène. Mm-hmm. gis nañ combat bi ni mu demee mais ñu jóge foofu làmb am fu mu toll. foofu làmb doon toll xaaruñu ko woon. Mm-hmm. parce dañ doon xaar làmb am ci niveau bu am bu sori bu mu yegg. pour yow lan moo téye làmb bala fii làmb toll est-ce que làmb war na tollu fii en ce moment. oui en ce moment làmb waroon na gën a dépassé li mu mel. Mhm. làmb boo ba mu déclenché ñëpp bëgg ko. Mhm. dañ ko waroon gën a sécurité. kën ko fonk kën ko jox cër. Mhm. ndax làmb tey Sénégal yi ñëpp ci bàyyi xel di ko seetaan. sponsor yi wuyu bon làmb am cër ci réew mi te ba léegi dafay am cër du fi mos a jógee. Mhm. donc mais nag yàlla moo dogal nag sponsor yi di génn. Mhm. te man bon du dugg ci domaine boobu parce que xaw ma ko. Mhm. maîtriser woo ko maîtriser wu ma ko. li am solo mooy man li ma maîtriser mooy wàllum làmb. mais làmb baaxoon na loo xamante ne waroon na gën a dépassé. parce que boo seetee Europe ñoom si football dañ koy dañ ko fonk. lépp li nga xamante ne lu leen yokku yokk rek lañ koy def mais du duñu xool luy wàññi làmb chaque jour nga dégg ñi naan làmb dafa am violence làmb dafa am nàngam. Mhm. làmb li ma sponsor du ñëw non làmb violence pour man mu see am. Mhm. signature nag mënul ñàkk. Mhm. wax ak coow am ñu ànd. parce que loolu signature la donc mënul ñàkk mais làmb ñii dañuy defar ñii di yàq. mais hmm. bu ñëpp man woon bëgg lu benn fer no làmb day gën a mbër sa mën na fekk ay cinq cent million hmm. ni mbër du fay ko cent cinquante millions wala cent trente millions wala cent millions wala soixante millions. Hmm. waroon na gën a dépassé foofu. waroon na dépassé foofu. waaw mais ñii dañuy gas ñi di suul. mais làmb moom yàlla def na ci barke boo xamante ne bon dina dina gën a dem ci kanam. dina gën a dem ci kanam Balla Gaye 2 mi ngi wax loo xamante ni ni du baala Gaye kase moom moo ko wax. Balla Gaye lii muy wax ni lu am solo la muy communication bi nga xamante ñu ngi koy def jëmale ko ci làmb làmb bonul amul lenn lu ànd ak làmb lu bon kon bu ñuy wax yenn yi ci jëm ci ay violence lu tax sponsor yi war mën a daw làmb loolu nañ koy xoolaat te loolu yëpp ñun presse sénégalaise dañ ci am dañ ci am rôle buñ ci mën a jouer France bu classico amee Paris Saint-Germain Marseille li ci am ci ay blessé mënuñu la wax nu mu toll. Barcelone Real de Madrid bu dajee. Oli Angleterre la amee. kon nañu xoolaat communication yi nga xamante ni ñu ngi koy def. ci suñu sport. Mhm. loolu lu am solo la mais dafa am benn. image bu ma la bëgg woon wan mhm. Karaja bu ma image bi dalee ma laaj ko Balla Gaye numéro 2 mu wax ma lu mu ci wax ñu xool image boobu loo wax ci image bi. image bi waaw mu euh, Eumeu Sène war na fi nomb. Mhm. waa di dóor benn instant. Mhm. waaw. Mhm. effectivement. image bi. image bi dóor na ma crochet da fekk na ma doon dóor. ma dóor luppe. mu dajeeg man ci crochet bi. waaw. image bi ma la wan léegi. am nga ko ci sa deux combats. ci sa combat ak Eumeu Sène ak ci sa combat ak Bombardier. boo xam da nga dóor luppe ñoom ñëpp ñu teg seen loxo fii. parce que bon làmb boo nekkee man lépp bu ma xesee ba dugg. Hmm. sama adversaire. Hmm. damay xool coup bu ko mën a doon bu porté. Hmm. soit que bu ma ko bu ma ko pertee. damay jël coup. mais bu dalee tamit coup bi day dal. dafay béy bunt. donc moo tax man sama combat ak Eumeu Sène parce que comme bi day dal. dafay béy bunt. donc moo tax man sama combat ak parce que comme moom ndaama la genre dama def déflexion dóor ko. Hmm. mu sëgg esquive. Hmm. ma dajeeg moom. ok boo gisee maa ngi xaaj ni sama loxo en même temps bëgg dóor. Hmm. comme jël naa ko damay taxaw. ok sëgg maîtriser ko moom xool mu ñëw ma téye ko. Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène. Balla Gaye 2 làmb ñi ko ci të. gisuñu ko ko ci tëj ci ñi muy bëreel. mais Eumeu seen Eumeu Sène dafa tëj Balla Gaye numéro de mbokk yi salaam baal leen ma de ñi ki ma woo maa ngi en direct <laughs> maa ngi en aussi Balla gisuñu ko ko tëj. Mhm. ci ñi muy bëreel. Mhm. mais Eumeu Sène dafa tëj Balla Gaye. non Eumeu Sène tëjul Balla mhm. mais làmb rek xam nga en fait. yàlla moo dogal tey mu dar ma ñaari yoon. et moo koy sant yàlla. Uh-huh. suñu borom. xam nga àdduna moom. kon mm. man dama jàpp ne toujours rek. Mm-hmm. nit mën na daan ñaari yoon ngir bëri ñetti yoon ba ñeenti yoon. Mm. Ah, ak a neexoon nag aussi tamit loolu am mais comme yàlla dogal na taxaw na ci télé bi ne du que ay affaires yoo xamante ne doo comprendre yow mi nga xam koy wax. Mm-hmm. doo ko comprendre donc munoo du mu wax loolu mu wax rek ba tënk ko lan moo tax ne du bëri aw ma ma yàlla dogaloon aussi tam neexoon na trop. waroon na continuer suñu carrière bay bëree. comme bëgg nga bëree ak moom nii. nu du question bëgg a bëree. waaw lu làmb soxla woon la. ok. lu làmb soxla woon la. ok donc moom moo def choix am. Mhm. nit di bëri ak Balla mhm. te amul choix bi fu mu ko teg. Mhm. amul benn raison bu mu ko teg. ok mais choix boppam la personnellement. loolu kenn mënu ci dara. je pense que ne loolu kese la. ah amateurs yi sénégalais ñu ngi wax naan ku ñu fëgg sa kër fëgg kook cent cinquante millions. doo ko bañ. ñu xool ndax am boog gars yi dinañ yóbbu kër Eumeu Sène cent cinquante millions. pour combat mag Balla Gaye 2 Balla Gaye numéro 2 lamb fi mu toll. coow li gars yi ñu ngi naan cachet bi mbër yi di fayeeku. maa ngi ciy waxtaan léegi ak kenn ci saal bi. ñuy wax ma ne ko cachet yi mbëri moom sax mu ne ma cachet yi mbëri di fayeeku moo yàq làmb. na mbëri nangu waa ñi seen cachet Balla loo wax loolu te Balla Gaye moo fi fayeeku cent cinquante millions Balla moo fi waaw macha allah yàlla yokk yàlla nañ dem ba mu doon deux cent trois cent. amiin lan nga ñu wax ci loolu yéen ñiy fayeeku kase yooyu. Modou Mbaye mbër kenn fay ko. Omar Sakho ñu mbër kenn fay ko. mbër lu mu fayeeku rek yàlla na ko. mbër muy bëre tey di créer Sénégal yëpp di bég ñi di kontaan. mbër bi day mooy limal limal sànq. Hmm. xam nga dèjà yaa ngi naan ma fi nga dem dafa cher. Hmm. baax a baax. lépp loo koy def da koy fay mbër bi. après jàppale ñu koy jàppale sax. peut-être lu bëri moo ko ciy dimbal te nit ñi duñu comprendre loolu. Hmm. xaalis neex na loolu boo ko gisee neex na mais comme mënoo nekk mbër bëgg a doon champion bëgg a daan te doo dépassé ci mbër. mais du question sax affaire kase ñun làmb mooy suñu objectif ba ñuy doog a dugg ci làmb 40 millions lañ ñu fay astafurlaa 40 mille lañ ñu fay. sa premier combat. waaw sama deuxième combat ñu fay ma 40 mille. ok ba mu jur ay millions loolu. Mm-hmm. bu amuloon barke duñ du am. Mm-hmm. promoteur yi ñoo la gën a yéene mbëri xaalis mbëri ñoo la gën a yéene promoteur tëgg am ci xaalis te duñ ci perte. Mm-hmm. xam nga tey. ñaanuma yàlla tey nga tëgg ma di ci am rëccu hmm. wala doo ci am bànneex hmm. mbër bi loolu la bëgg yow mi nga xamante yaa ngi may tëgg dama mos ma sañoon da ngay am hmm. wax dëgg yàlla gis ci sa bopp bon du mu kase pour man man kenn musul ñëw kase di ma booleeg benn mbër astafurlah benn promoteur non loolu musul am waaw la neex nga laaj suma yaakaar Balla mos na wàññi kaseem pour bëre def naa ko ñaata yoon te si fekk mu signé contrat ba pare. yàgg. ok def naa ko ñaata pour sauver combat. pour sauver. ok Aziz tëgg na fi combat bu métti. waaw. combat yooyu xam na ñaata ci xaalis ñaata lu mu toll. Mm-hmm. am na ñoom nag da nga bañ ah. waaw donc xam nga ne làmb dundal na ma. Mm-hmm. mais maa ngi dundal làmb. Mm-hmm. Balla Gaye 2 ak làmb Balla Gaye 2 li ko làmb defal. bi Balla Gaye de di bi baa ngi fàttaliku interview boobu ñëwuma woon. Mhm. mais bi la sam papa di njëkk jël. mi ah. ngi jël ci lavabo bi ngay sëlmu. ci robine bi ci robinet bi ngay sëlmu. Mhm. léegi macha allah Balla Gaye tabax na këru boppam. Mhm. xaw ma nag ndax am na yeneen kër ou ñu ngi koy dégg. mais li làmb defal Balla fi làmb yóbbu Balla. waaw làmb man mënuma fay làmb. parce que làmb defal na ma <clears throat> sagal na ma. tax na nit ñi respecté na ma tax nit ñi jox ma cër. Mm. làmb man mënu ma fay làmb parce que làmb defal na ma lépp. Mm. làmb wax dëgg yàlla mënu fay làmb te man làmb comme mënu ma ko fay dama war a dundal làmb. Mm. waaw làmb moom defal na ma vraiment. Mm-hmm. làmb am na lu bari lu mu la defaral. waaw mu ma macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. ngay Balla bu demee bu demee bu demee ci ambassade di ñaan visa du ci sonn. loolu làmb defal na la ko. am nga connaissance boo xamante ne nii tey sa diggante ak ñeneen George Weah jóge na ci dëkkam ñëw seet si balagay Gaye numéro 2. làmb moo ko may loolu. Modou Lo téye na flamme olympique. làmb moo ko may loolu Tyson def na ay publicité hors du Sénégal làmb moo ko may loolu kon làmb am na fu muy yóbbu doomu aadama bien sûr làmb làmb làmb sagal na lu bëri képp kuy rek yàlla dafa na donc làmb moo tax dooy caaxaan hmm. làmb foo ci bëri da lay yomb hmm. nit ñi bëgg nañ ne foo dem nit ñi dañ lay topp hmm. ba yow li nga que dañ lay rawale pour nga mën def loolu après nga dem vite fait kon làmb gàcce ngaa làmb moo maa dàq maa la dàq bëre la lay wax saa yu bëreek yow mais combat bi dafa wane ni dafa mën a xeex ci diggante ba Gris Bordeaux la xewe woon mi ngi amee woon stade de l'amitié Luc moo ko tëggoon. Mhm. mbokk yi ñu def seetaan loolu ñëwaat ci plateau bi léegi léegi ay ca let's go. ngi fii ci stade Léopold Sédar ñoom ñaar ñi ngi léewtu Balla mi ngi jiital tànku càmm Gris Bordeaux mi ngi jiital tànku ndijoor ndeysaan ñoom ñaar Balla mépp na Balla doon na door Gris jël ko Gris jël ko Balla bañ na Balla bañ na Balla Balla ñoom ñaar ñi nga xeex ñoom ñaar ñi nga xeex lay lay la la dajawaat nañu ñoom ñaar dajewaat noonu ndax day génn saaku Gris jàpp na Gris jàpp na Balla jàpp na Gris ndengeñ na arbitre bi mi ngi leen di yër gu dóor yin yaakaaroon ci Gris Bordeaux ci Balla gay la gën a feeñ bal la arbitre bi atte na ci diggu géew ci ndodd Balla Gaye avertir nañ bi sifflé na Balla Gaye ndeysaan ndaw làmb ju amateur yi bëgg cey Luc Nicolas ak Luc Nicolas la ñi ngi xeex Balla doon na ko jël Gris bañ na ñi ngi xeex ñi ngi xeex ñi ngi xeex jàppante nañu jàppante nanu Gris Bordeaux ak loxo ndijoor bi jàpp na Balla Gaye ci suuf Balla Gaye loxo ndijoor bi jàppul mais mi ngi dóor tàggoo nanu kenn dóor na Gris dóor na songo nanu ñu ngi xeex Gris Balla topp na ko Balla taxaw na defar na téere bi Balla Gaye ngi ñëw Gris ngi arrière Balla ngi koy topp Balla bëgg na ko génne saako yi moo doon mu féete noonu Gris génn na Gris génn na arbitre bi nee na ko kaay Gris Bordeaux demal Balla si bi joxe verdict Bordeaux ñaari yoon a ngi noonu ngay génn géew bi ñaari yoon na ko géew. Sitor yaakaar naa ne bu arbitre yi Gris Bordeaux génn nga ñaari yoon saako yi woo nan la. Gris Bordeaux Balla Gaye ñu ngi xeex Balla ngi dóor Gris ngi dóor daje nanu Gris Balla dóor na Balla dóor na. yaa ngi door arrêté na combat bi 20 minutes dem na. c'est logique yi daal maanaam xeex ga da xeex moom bëre ga da ngay moom. mais lan ñu ngi xeex kii rek mais combat neex na. neex na de neex waaw. dina gën a yàgg nga bu ñu ñëwaatee yaakaar kenn ku ëpp sa morom ku gën a ku mën a gën a nax sa morom mën nga koo fi ñu toll naxaateel. fii naxaate moo des léegi waaw. gisuma woon lamb bu ga bu yeex lamb bu gaaw laa gisoon. Balla jël na Gris Gris bañ na dem na ah jëloon na tànk Gris génne na ko Balla sëgg na for suuf Gris Gris génnat na Gris ab vingt et une minute maanaam bëri nañu ci deuxième round bi lu mat neuf minutes. lamb ji jeex na lamb ji jeex na. champion sachant ah kontaan naa mooy lamb mooy lamb et mon frère je suis trop content de toi maa ngi jégalu très bravo. jaajëf bëggee bëggee bëggee bëggee bëggee bëggee bëggee bëggee bëggee bëggee bëggee bu baax a baax bëggee doomu Sénégal yi nga xamante ñu ngi parte dans le monde. Mm-hmm. di seetaan en ce moment l' émission mbokk yi l' émission se passe en direct sur la 2STV kafuñu foowuñu réewuñu ñun affiché wuñ suñu direct bi pour du pour du n'importe quoi ñun xam nga ne moos bëggal leen moom moo ñu tax a jóg seen mbégte la ni sàkku moo tax chaque mardi incha allah ci fa ci fan yi ah dinañ déplacé wu dem Kër Mbër en direct la ñuy def. ñu reewuñu ñu ngi ci wakaam léegi ma jox leen monument bi léegi nii <laughs> laan jox monument bi en live ngeen koy gis Balla Gaye 2 innovation bi mhm. déplacé wu ñëw seet si mbër këram en direct ah, ñu teg ko ñu waxtaan mhm. la wax ci innovation bi waa loolu loolu am na importance parce que tey c'est pas moo fi njëkk def di seeti mbër mu ndaw bu ko déclenché. Hmm. si waate boo nekkee tolloo ñun si génération bi. ñu hmm. def en direct loolu mooy ne làmb nga jëm sa kanam. Hmm. en direct pour ñu seet si mbër bi waxtaan ak moom. Sénégalais yi kontaan. amateurs yi kontaan. donc c'est très important. may nuyuwaale aussi tamit euh, Assane mu ngi Amérique. waaw sama xarit sama doom. ndeysaan ak euh, Claude Messi. Abdou Karim merci mon frère. ak sama doomu Ndeye Bousse. ak Ketchup ndeysaan waaw maa ngi lay siyaare. ñu leen di bëggee bu baax a baax. góor Fane Mbaye dégg nga sama ñaari doomu Ndeye ah. kan ak kan Laye Mairie euh, ak Cheikh <laughs> suma xarit. Ah, ah. <laughs> ak Sa Thiès. macha allah ak ah. waaw Badara Badara copain Sa Thiès <laughs> maa ngi koy ah, a baax di bëggee Pate Ka ah mais Abdou Karim merci mon frère góor Fane Mbaye jaate mi ci mm-hmm. àll bi si maa lay siyaare yow sama yaay nee man ak ñoo bokk yaay mm-hmm. maa ngi lay béggee bu baax bu baax je ne peux maa ngi lay kontaane mais Balla Gaye 2 actualité bi Balla Gaye 2 ba Boy Niang la Modou Lo Ama Baldé loolu mooy li nga xamante ne loolu la Sénégal yëpp di wax seetaan nga léegi combat bi nga xamante ne moom moo amoon stadium Iba Mar dégg nga si nit ñi wax mhm. Balla Gaye 2 Boy Niang mhm. loo wax waaw man Modou Mbaye mooy li may wax rek man mbër laa te mbër lay doon fekk maa ngi bëri mais damay liggéey fekk maa ngi nekk ci métier mosoo leen dégg ma ne dama bañ benn mbër mosoo leen dégg ma ne dama daw benn mbër mhm. nee làmb dama dundal làmb mhm. da ngay dundee làmb mais dama dundee làmb ba pare mhm, léegi damay dundal làmb ci moment boobu laa toll fii mainte sens amu fi liggéey moo la war a tax àgg fi nga war a àgg te lu amateur yi bëgg man pare naa dama bëgg mu leer pour laajte yi jaru muy bëri wax ji jarum yu bëri lu amateur yi bëgg bëgg naa lu Sénégal yi bëgg bëgg naa. mais Boy Niang ki di. ku ma joxoon avance léegi promoteur fekk ñu may wax ak yow nii. waaw. na avance booy ñaa ngi nii wala bu Modou ngi nii ku mu ci doon ku ci doon wala bu Gris bu Tapha Tine bu Bombardier hmm. mu yóbbu ko suma mais bu booy ñaa la bëgg sénégalais yi bëgg ñi nga lim ñi ñëpp waxuñu ko booy ñaa lañ wax na avance bi ñëw mais ak ci booy ñang booy ñang booy ñang diggante mel la ni mu demee pare nga pour bëreeg moom na avance bi ñëw man métier laay def liggéey mooy suma métier amateur yi ñoo ko bëgg ñoo ko bëgg sénégalais ñoo ko bëgg am pare na amul problème. information baa ngi noonu. wax ji farankulaay na wax ji farankulaay na information baa ngi noonu Balla Gaye numéro 2 pare na. pour bëre ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang promoteur yéen yéen a ci des làmb dafa am problème promoteur en ce moment. ah yaa ma ko wax de. amul problème ah, ma ko wax yàlla. Mm-hmm. pour man làmb xëy na combat yi moo jotagul rek moo war a taxaw mais léegi mu taxaw incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. mbokk yi préparé wu leen te ngeen xam ne léegi ngeen dégg ñu ne combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang taxaw na parce que accord bi bala gay 2 joxe na ko Balla Gaye numéro 2 Sadio ne mi ngi à l'extérieur di mhm. représenter Sénégal nekk suñ doomu dëkk ñu mhm. fier macha allah ci fi nga xamante ni yóbbu na fa drapeau Sénégal ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yokk kàttanam mi ngi liggéey lu am solo mhm. di tabax ay mbir ci Casamance dégg nañ ko ci yow. Mm-hmm. yaa ngi tabax ay mbir. Mm-hmm. golf. Mm-hmm. ci lu jëm ci seen police. lu jëm ci seen maternité. jëm ci ay gestes yoo xamante ni day wane ne Balla mi ngi delloo population bi lim leen liñ ko jox. Balla Gaye de gestes yooyu. waxtaanal ñu ci parce que man for naa ko ci yooyu bay waxoo ma ko mais man naa ko. <laughs> mooy mooy ñun ay Sénégalais lañu yi xam nga mooy li ma wax réew mënoo ci nekk te doo ci jëriñ bu la réew mi di la jëriñ da nga koy jëriñoo. mooy lu baax mooy geste yi nga xamante ne bon police euh, police golf ñoolu yàlla dogaloon tey ma ànd seeg sumay ay mag ay kilifa ku ci mel ni Pape Sané yu bëri maam Thierno hmm. ak euh, ñoom Aziz ak may ñoom Mbaye Diop ñoom ñëpp def seen participation ak ñoom àndaw hmm. donc vraiment ñu tabaxal leen ay bureau tabaxal hmm. leen li nga xamal ay jàq ci biir xam nga donc vraiment loolu mooy suñu wareef parce que tey mun ñoo nekk tey ci doomu dëkk bi te duñu def dara ci dëkk bi. Mm-hmm. mu ñu nekk doomu quartier bi aussi tamit muy golf. Mm-hmm. te duñ fa def dara. Mm-hmm. donc loolu moo tax sax ñu koy def. mais ba léegi man nanguma sax bëgg di ko wax nit ñi di ko dégg wala genre yu demee noonu. waaw mais yaa ko def jàpp naa lu may def rek yàlla rek moo tax moo koy def. waaw sant yàlla rek mooy nga <laughs> nañu sant rek at na amul solo. waaw teraanga daal lépp loo ko mën a defee mu baax moom sutura am na solo. Mm-hmm. te man ci loolu lañ ma yére ci loolu laa xam. bu mm-hmm. fekkoon ni lu waay defal nit ak wax ko kon Sénégal day metti mm-hmm. ni ñuy def te yàlla tax. ñu fonkante. ngisal jaru ko. waaye man yàlla moom baaxuma li may def yëpp maa ngi koy def ci loo wax ci sa frère Sadio Mané. waaw maa ngi koy encouragé nag aussi. Mhm. en tant que doomu Casamance. Mhm. nekk doomu sénégalais euh, nekkal ñu fa nag gis nañu aussi tamit li muy def mu gën na ko yokk parce que wan nañ ñu ko tey fi la gars yi teg yow dépassé nga niveau boobu. Mhm. te mu ngi koy wane. keroog ballon d'or bi bañ ko joxee mais ñun dañu gis beneen Sadio Mané. waaw te loolu c'est très important. wane na ne tey am na jom. Mhm. wane na tey bëgg na li muy def. wane na mhm. tey gars yi dàqu ñoo fubal. déedéet loolu nag na ci sax. Mhm. na ci nekk. na ko gën a li mu doon def na ko gën a yokk. ndax gis nañu ay changement yu garaaw ci diggante boobu rek. Ah. wax dëgg yàlla tontu na tontu na muy fubal. waaw nit ñi ngi bëgg. gis beneen Sadio Mané. waaw bu professionnel la gën a xarañ. waaw mais dafa jaaxal Sénégal kon saajo et bon courage. continuer nii nga def nii Sénégalais yi bëgg nañ la. Mm-hmm. àdduna yéene nañ la Ballon door yéene nañ la tey lépp loo xamante nit da ko war a jël ci rek. Mhm. Casamance yéene nañ ko. Mhm. Sénégalais yéene nañ ko. Mhm. kon gënal jàpp gënal dolli. noonu ngi koy encouragé bu baax a baax di ainsi que les autres lions yi nga xamante ne nii ñu ngi ci yeneen club yi. di fa ah, parce que ñoom ñëpp ay Sénégalais la. képp ku nekk ci équipe nationale bi. ñoo ngi lay encouragé di la ñaanal. dafa fekk ne nga laaj ma ci Sadio Mané. ci c'est vrai voilà xam naa ne ñoom ñëpp si borom jom lañu borom baax lañu rawatina aussi tamit entraîneur bi Aliou Cissé ah. donc vraiment yal na ñu yàlla jàppale. amiin ci taxawu leen. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin voilà merci. ñoom ñëpp Idrissa Gana Gueye Ismaïla Sarr. yéen ñëpp yal na yàlla ubbi seen buntu yal na yàlla defal leen ay ndam yu kawe kawe parce que yéen sunu titre yéen la ñuy sagoo. Mm-hmm. Balla Gaye numéro 2. Mm-hmm. loo bëggoon a wax te laajuma la ko. suma xel génn ci wala lan lan moo manqué ci waxtaan wi. waaw dara manqué ci yaakaar naa ne wax bi rafet na question yi am na solo. wax dëgg yàlla loolu moo ci am solo te nit moom booy wax te waxoo li nga xam ne jaaduwul eh, dafay xaw a doy waar. Mm. mais li nga fi wax yëpp dafa jaadu. MMA. Mm-hmm. mi ngi ñëw Sénégal ndànk nànk gis nga sarax. Mm-hmm. Siteu dem na am na ci yoo xamante mi ngi góor góorgóorlu. Mm-hmm. Balla Gaye numéro 2 gis nañu Bombardier mu dem xeex na ci MMA est-ce que Balla Gaye mën nañu am chance wu gis mu def loolu. non parce que du yomb. waaw man dama bëgg def euh, MMA boo xamante ne aussi tamit. MMA euh, boo xamante ne dafa professionnel. ok am ah, MMA donc MMA daa bëri façon. Hmm. ay niveau la waaw ay niveau la. ok te pour nga àgg foofu si dafa métti. MMA nekkul MMA niveau bi bu ndaw bi man wax dëgg yàlla soxla ma ko. ok te bu may def MMA day fekk ngay def centre formation nekk ci nekk ci di kañe. nekk ci professionnel tàll. ok kon donc loolu pare moo ko def ko. Mhm. vraiment waaw. Mhm. Mhm. parce que temps bi rëcc na benn message sur la jeunesse ci ci jeunesse sénégalaise. sa rakk yi sa moroom yi ndaw ñi. ban message nga leen di lancé. waaw maa ngi lancé ñëpp message ñu gën a fonkante gën a jàppante. gën a joxe cër. nit ñi ñu delloo seen xel ci yàlla. xam ne yàlla rek mooy buur. di jaale suma xarit Pathé Boye papaam dafa génn àdduna mm. yàlla ko yàlla yëm ta xaar ko àjjana mm. moom ñëpp di gërëm aussi tamit euh, suma xarit yi ndax euh, dañ may jàppale mm. Amérique New York moo duggee ci Amérique maa koy sant di ko gërëm Awa Seex maa koy sant di ko gërëm suma mamaasu fay ah, faar baa ngi noonu ngeen gis faar baa ngi noonu bu ma kenn <laughs> yàqal faar baa ngi noonu maa ngi koy sant di ko gërëm ak Père Guèye ak Père Babou ñoom Mamor xam nga ñoom Cheikh Fall ñoom 116 mhm. bi New York bi mhm. bronze ñëpp maa ngi leen di sant di leen nit ñoo fa nekk mhm. nga dem France 18e Boy Naar suma xarit maa ngi ndeysaan Zomizo xam nga waa France ñëpp maa ngeen leen di xam nga Suède Angleterre. Mhm. xam nga Allemagne ñun ñëpp ma ngi sant leen bëggee. ak mhm. ma Paul sama doom sama xarit. Mhm. ma nekk France maa ngi koy bëggee xam nga. donc daal di bëggee ñëpp di sant ñëpp. di leen wax ne ñu delloo seen xel ñu respecté doomu aadama ñu fokkante ñu jàppante ñu joxante cër loolu moom solo ci doomu aadama. di sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ma santul wala ku ma gërëmul rek maa ngi jégalu. ndax bëggoon naa ko wax xëy na xel bi moom fatu mhm. di gërëm suma waa école de lutte ndax gis naa xale yi macha allah ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ñu ngi jéem a nekk champion mhm. di leen wax ne rek loolu rek la mhm. am coom am fulla nekk ci li nga war a nekk waaw donc vraiment maa ngi leen di sant école bi ko ci mel ni Lees. Mhm. Elton Lamine Golo mi nga xam moo yor école bi. Mhm. di leen entraîné. Mhm. ak ñoom Mbës ak ñoom Ibi Seck fils de Balla. Sou Diaw de ku ma la mu Juna Jum caatu. Gaku de Daal Fall. xam nga ñoom Cheikh am Lomfor. Buuba suma xaritam nga ak. Aline Seck vraiment may gërëm géejuwaay gi yëpp ak Zal Garnier suma xarit. ah ak mhm. as ñoom Ipo Ngaar yi. Mhm. ñoom Bayal ñoom mhm. Fallou sama jabaat ñoom musa commissaire. waa Casamance nag mention spéciale. maa ngi leen sant di leen gërëm. xam nga Sadio maa ngi koy sant Sadio bu Gambie. saajo bu Gambie waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. gis naa nu muy def ak man. parce que nit ku baax la waa Gambie gi yëpp ak neen Fall maa ngi koy sant. ak suma yaay. moom boo ko waxee rek naa ko sant gërëm. soxna Néné Fall la. Mm. mais vraiment gis naa seen seen. Néné Fall bu Gambie waaw Néné Fall bu Gambie. jot jëkkër jotu Tambédou. waaw merci beaucoup. oh ndeysaan su may xarit yaa ngi wax ñu baax. waaw ñu baax vraiment mm. ñu nit ñu baax rek. Mm. spécial. Mm-hmm. maa ngi leen sant di allah. waaw di gërëm nag euh, ñëpp nag. xale yi nekk ci làmb yaa ngi leen di seetaan. waaw yaa ngi leen di bàyyi xel. bu baax. yan xale nga ci gën a bàyyi xel parce que champion yi fi nekkoon dañ leen daan laaj ñu lay lim tey dañ lay laaj xale yi ngay bàyyi xel yaa ngeen di seetaan kan la waaw mooy li nga waxoon rek ki ci njëkk Mama Lamine maa ngi koy suivre Mama Lamine bu Lamsaar bu Lamsaar mm. waxoon naa ko avant mm. te yàlla dogal na ba léegi mu ngi wone preuve am mm. yàlla na ko yàlla kàttanal dolli amin amin fi sa balla mm-hmm. suma école da nekk mais maa ngi koy gis qualité yu baax yi muy def yàlla ko ci yàpp yàlla jàppale gërëm Hmm. noonu la mel dab ko c'est la même chose. Hmm. beneen bu ci mooy kii waaye mbir mi nu mu tudd commencé ko. ay waay <laughs> la nekk. <laughs> Eh, waaw Fatou naa mooy te léegi maa ko bëggoon wax. ban écurie la nekk. Modou Mbaye xam naa fàtte naa ko mais daal maa ngi gërëm xale yi nga xamante ne vraiment <laughs> ñu ngi nekk ci yoon. ci yoon bi macha allah ci yoon bi. Hmm. gis naa comme classe wulli gi. wulli gi waaw wulli de. gis naa ko génération boo xamante ne mm. vraiment. ñoom kéwél ñoom kéwél. xam nga dafa saf sap moom. ak mm. ñoom Maguette Seck. waaw xam nga ak mm. ñoom euh, mbër bi waay euh, te mu dëkk te mu ñuul nii rek. Colifay 2. non Colifay 2. waaw ak kii nu mu tudd. te mu doon mbër double moteur double moteur. waaw ay xale la ñoo xamante ne vraiment ñu ngi ci làmb. Mhm. mais combat double moteur nag ak maama la mi combat bu neex la bu ñu ko ndax combat bu neex la. man loolu duma ci wax ah. loolu bu neex la. kon comme ni amateur yi bëggee Boy Niang Balla Gaye mhm. noonu la amateur yi bëggee wul double moteur maama la mi. maama la mi combat bu neex la. loolu amateur yi ñoo koy laaj. kii mbër jël euh, kii ca mu dëkk euh, benn braak. comment ça s'appelle tamit bëri fii Zabal. armée. non tamit bëri. général Malika général Malika général Malika. ko félicité gis nañ ko. muy mm. def xale noonu lay mel. waaw ku am carrière la ku nekk ci yoon la. waaw fii sa baal tamit ku am carrière la ku nekk ci yoon tamit gis nga combat yooyu mooy combat loolu mooy combat. dëgg la da ngay boole ñaari xale yu tolloo doole. Mm-hmm. tolloo lépp. waaw nga xam ne ku ci daan da ngay xam ne kii daan na morom day pare dem yoonam. loolu mooy lamb. dëgg la mais teggante bi. jaru ko. ku mhm. bëgg a doon champion da ngay daan champion. Mhm. boo doonu champion dangay yàgg ci làmb ji. Mhm. te du ko jar. làmb lépp risque la. na mbëri nday booy yi nday. mooy cante bi jaru ko. jël leen risque bëri seen biir. ngeen mën a fekk champion yu mag yi. ku ko ci deful tamit da ngay caare sa bopp risque rek la gars yi. waaw mooy loolu. kontaan ci moom bu baax a baax kontaan naa ci yow. Mhm. yal yàlla defal la jàmm. Mhm. ci disponibilité bi parce que benn yoon laa ko woo mhm. mu ne ma pare naa. loolu di wane ni nga xamante noonu la jàppee te du tey ah. Mm-hmm. ma leen koy seeree ci sama diggante ak moom. suma mag la suma xarit la. depuis bi ma nekkee seen TV. yàgg na ci jàpp saa yañ ko soxlaa rek day ubbi buntam yëpp. Mm-hmm. ma la ciy remercier bu baax mais di euh, mm-hmm. euh, bu Nioro. ndax vraiment làmb ju mag la organisé waa ak Nioro. xale yi génn quartier bi génn suñu papa yooyu ñoo ngi koy sant. di ko gërëm ñoo mu ngi def lu baax euh, sa Nioro. <laughs> vraiment di gërëm Mbaye Diop. Talla Meng Modou <laughs> ak sama papa Aziz ak Baye Ndiaye. Ah. xam nga vraiment ak Thierno Gueye. Mm. sumay nit personnellement yoo xamante ne. Mm. samay nitu bopp lañu. Mm-hmm. ñooñu dañoo bokk ci man. Mm-hmm. xam nga vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm école de Balla Gaye yëpp di gërëm waa Guédiawaye yëpp. Mm. di sant supporteru Balla Gaye numéro 2. jërëjëf yaa salaam yaa salaam. jërëjëf kontaan naa ci sëñ Bassirou yàlla yàlla yokki leeram taal ju barkeel. Ah. ah di gërëm Diaw. suñu papa Diaw. waaw <laughs> ak Daouda Seck. sam papa. waaw sa papa sa sam papa Diaw. sam papa Diaw ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. Assane Seck ñu ngi koy. bu a baax sa doom a ngi ngi koy siyaare bu baax a baax. ak Daouda Seck ah. ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax. Aline Sall maa ngi koy sant aussi. Mm-hmm. mooy maire gox bi. Mm-hmm. mooy maire waa Géejawaay. Mm-hmm. donc maa ngi koy sant di ko gërëm préfet occasion boobu. nekk nañu ko baax gis nañu liggéeyam. baax yi muy def. ne na taal vraiment. nekk nit ku baax. Mm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ay nit ñu baax lañu. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax moom lañ dénk ndaw ñi nee na Fatoumata Tall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yow di kontaan ci yéen ñi nga xamante ni ni yéen a taamu la 2STV def ko télévision bi leen di bégal mbokk yi di leen wax ni fi la xewee woon ci la 2STV Balla Gaye numéro 2 la ñu ko tijjee te du yam fii Bantamba mbaala boo xamante ne ni star bi la ñuy seet si si biir këram bii di ñëw Modou Lo préparé wax nañ la ko en direct sur la 2STV bi di ñëw sa kër lañ jëm si incha allah ñëw waxtaan ak yow ci làmb bu baax a baax mais mbokk yi di jaajëfal ak di félicité ñi nga xamante ñoom la àndal liggéey la boo xamante ni nii mënoon na jafee ñu def ko waaye seen professionnalisme tax na tey jii liggéey bi réussir na muy la 2STV 2STV c'est la télévision autrement seen mbégte rek moom mooy suñu yittee lépp loo xamante ni mais di gërëm Balla Beye numéro 2. champion suñu mag day ngénte la kat nag. Ah. waaw loolu moom dafa ñëpp teew. ah noo koy defee. ngénteel Balla Beye numéro 2 la kat la mbokk yi. incha allah Balla <laughs> soxnaam nekk na ni ku baax nag vraiment. gis nañ ñu koy taxaw gis nañ koy jàppale. Mhm. yàlla na yàlla yàggal seen kanam te taxaw leen. amiin ngeen bi daal la kaat la. la kaat la incha allah di leen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax di kontaan ci équipe bi yëpp. Karajo Moustapha sama community management bi yaw yaa fi ne maa ngi lay siyaare bu baax a baax Pamaay maa ngi lay bëggee Lamp maa ngi lay siyaare di kontaan ci yow di remercier Bruno Mbaye sama jumeau. di la kontaanee moomoo laa jàkkaar loolu libaas maa ngi koy siyaare bu baax baax di bëggee toute la 2STV yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee di leen xamal ni kontaan nañ ci yéen boo bëggee sañse bu rafet bi da ngay dem TTD mooy tout type d'habillement mi ngi nekk Sicap Plateau Sandaga Fallou moom moo fa nekk sama xarit bi ak Guèye Dollar maa ngi koy siyaare bu baax a baax Guèye Daala da ngay woote 77 629. 12 24 77 629 12 24 boo ko defee jokkoo ak Fallou mu jox la sañ sa bu rafet a rafet décembre yi. di gërëm Omar Wali Fessa. Mhm. lii ma sañse vraiment donc moom mooy habillé ku bëgg ñëw bu baax nga dem ci moom. Mhm. donc xam naa numéro bi après di nga ko jàllale si suuf. dinañ ko ah, jàllale Omar Wali Fessa Omar Wali Fessa. vraiment muy créé ñëw yi nga xam te ne mu ngi koy def ñu koy sant. bëggee ko bu baax a baax parce que ci liggéey bi la bokk ak ñun di ànd. dëgg la accompagné. bu ñu amee bu ñu ko mhm. woowee rek. disponible na. donc vraiment ñu ngi koy sant di ko bëri programme mhm. Balla Gaye dafa indi trois programme am mhm. noonu la koy ñëwee def ko mu rafet jox ma ko mhm. ñu koy ñaanal yàlla ak waajuram ak ay njabootam yëpp yàlla dafa leen jàpp amiin loolu am solo la mbokk yi kon nañ ci yéen bu baax a baax ñu bàyyi leen ak waa ñu dégte leen signature de contrat bu am solo bi nga xamante ne dox na ci diggante Pape Ndoye bu Fass ak Jackson mi ngi amoon ci Gueule Tapée ci am production moom moo ko woote mbokk yi muy bés boo xamante ne bés bu am solo la 14 lay xew ñu bëggalante ak yéen ba mari bi ñëw kër Modou lay xewee ci biir Bantamba c'est le Bantamba c'est le Bantamba c'est le meilleur. kase naa naa dañoo jóge ci ñaari dëkk yoo xamante ne nii ay dëkk yu mag lañu ñoom ñuy ay mbër yoo xam dañoo am ci ñoom yaakaar loolu moo waral ñu taxawal seen combat ngir ñoom ñaar ñu am fu ñu yóbbu làmb mbokk yi keroog maa ngi fàttaliku bis bi nga xamante ne nii ci la bëre ak sang mu nekkoon combat boo xamante ne nii man mii maa ngi leen di seetaan mais joxuma ko woon favori waaye bëre ba mu fa bëre fulla gam fa wane fit gam fa wane tax na tey jii mu war mën a bëre ak Pape Ndoye Jackson numéro 2 ma bëgg ngeen dugal ko. di gërëm waa Gueule Tapée yëpp waaye di la wax ni maître Baba bul fàtte ni nekk na président écurie hmm? xam na réalité làmb hmm? jàppale na nitu làmb c'est pas pour rien drapeau bi ñu jël jox ko nit ki boo koy tuddee dara. da koy tuddee ku ko mérité. waaw booy ñu jox nit dara da koy jox ki ko xam waaye rawati nañu fekk ko fi mu dëkk mbër yi vingt mbër la ñu andi woon di la xamal ne met baaba pour bañ embouteillage xam na ni lii fi nekk soo ci dolli woon seize lutteurs yaakaar naa ne fii kenn day day toj waaye di sotti ñu wàññi ko ba andi fi seize lutteurs waaye baaba jaw may ñaan ci kàttanu yàlla képp kuy doomu Médina doomu Gueule Tapée na nga ko ñaanal jëf ji yaatu na lool waaye wax ji néew na lool. dëgg la lépp lu ko war la woon ak CNG de lutte def na ko ba mu mat. làmb toll na foo xam ne li ñu ñaan pour xale yëpp mun a bëree mooy que promoteur yi gën a yokk donc bu ñu gisee tey benn xale boo xam ne ku yaru la discret ñëw dugg ci làmb mënuñu lu dul vraiment lu ñu munti def ñëw jàppale ko. mais boo gisee ma bàyyi sama ité yëpp ñëw ànd ak moom. dañu bokk Gueule Tapée d'abord bokk taaxi buur te gis nga Modou Ndakaaru ku fi sos dara fii mooy cosaan fii nag fi la baaba soxeekoo ko ñuy ay magam yàlla def ñu dajawaat si baru bi bés bii ñu jëm nag gis nañu tey mbër yi nga xam ne ñoo ko seq Pape Ndoye Jackson euh, xam nañu leen ñu nekk ay xale yu am jom ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a seet bés boobu yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñu fekkee ko tattal ko ñëw def fulla ak fayda ndax làmb bariwul bari na euh, profession la tey am nañu ci yor seen njaboot am nañu ci suturlalu bu baax a baax ñi ngi ñaan yàlla ñii nga xam ne ñoom ñoo séq tey bés bii yàlla may leen ñu kawe lool ba romb noonu Bombardier romb noonu Tafa Gueye ñëpp yam ay nekk roi di seen roi de l'arène ndeysaan ñaari xale yi ba léegi attention eh na ko de yaa ngi noonu la ilaha illallah eh boo xam ne bëre day toll boo xam ne volonté moo koy kon na xoolaat boppam na xool yi nga xamante yooyu lay def moytu attention Bécaye la ilaha illallah Bécaye daan nañ ko jël bu booy bëre na booy Bécaye dañ koo wëndeel xatal ko ah, da koo xatal faq wulil waa ba ngay sulli donc euh, booy seet euh, booy yi waaw booy yi bëri ci la attention. du yàgg attention Mama Lamine Jokkel ñoom ñaar. du yàgg combat bu gaaw lay xeex. combat bu gaaw daw na Jokkel da koy daan. da koy daan da koo doole. da koy doole doole doxul jàmm doole doxul jàmm Mama Lamine loo wax. daanaan la so moo ko indi. waaw li jëndiwul benn kurfañ. fu mu nekk fu mu jàpp ba exploité ko rek lay wut. gis ko fa muy jàpp ma ngay gën a baax. waaw ataay ah, la daan na ko te tuur na ko te doon bëri. waa jaa ngi la ma ngay a jekk. waaw daan ko. ah su bëree la ko daan. maam booy maa ngi leen nuyu xam naa ne fi tollu toogoo taxawoo. waaye ñaari xale yi ñuy xeex attention Kaawo booy Fissel ndax daan bëgg a Kaawo sekk ndaanaan ah, bi yow. eh attention booy Fissel daan na sekk ah. ndaanaan maa la wax nii. Ah, waaw dóor na ko daan na ko. daan na ko waaw. <laughs> Eh. <laughs> waaw gis nga. alaaj Paala gis nga xale yi léeg-léeg. dañuy bëree bëree gis nga dañoo xeex ci kaw. waaw mu sànni ko ay coup ci menton bi. waaw gis ko mu xaw a teel mu daal koy fëkk daaw moom tuur ko. loolu dafa bokk ci bëre ndax dañu wax bëre dóor. pexe yi ñëpp la ci dièse 144 dièse ngir yombal seen dund taamu leen seen kalpe orange money orange money daal ku a xam dootoo ko bàyyi asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb seen émission démb nag dellu siwaat na ci réew mu màgg moom réew mu nga xam ni moo di Jolof nga xam ni sunu maam Njaajaan moo ko sancoon daje fa ak ay nit yu baax tey nag ñu tànn ci ñi nga xamante ni ñoo sant ñaŋ te ñooñu kenn mënu tudd te tudduloo waa réew mi mbaa nga tudd ñi gën ci réew mi ndax euh, boo demee kër sëriñ Touba seen maam ci la bokk boo demee ci alaaji Abdul Aziz Si ci la bokk réew mi daal ah, wax dëgg yàlla ñi fi baax ñépp am nañ bokk ak ñooñu sant ñang ñooñu nag tey jii ñoom lañ ñëw pour xamale leen ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki doom ak juróom biilim la aadama jur si saa di caat ma di maamam xaafi wax li ju wér afi mooy doom ci sant ñan ñu ne ko xamul yonti yàlla aadama ñaar fukki doom ak ñeent la am bu ko juróomeel mooy yonti yàlla eh, siisa te caat day fekk caaxaan jeex dootoo mooy yàlla kenn soxla wala kon lu fa juddoo war naa mën a baax looloo tax ñaa ngi nit yi jaar ci ñoom génn ñu ne ko xamuñ ko mu ne ya yonent yàlla si sa mooy maam ñu sant ñang Séemu Xujaak Moodi Xujaak Mojon Xuja ñi la Bakaraam ak Soxna Xuja Njaay jëleenum ñul dëm jéeme kumba ca muy sant Njaay ñooy seen Njaay mojja na nga naan Séemoo nga dundoo je xooxool Moodi ngi mbuula ak aafi ak ngeet ak ndok mu ne la ci téere bi mbooleem ko sant ñang ci réew mi fii la ki nga xam ki nga xamul ci ñiila dem na caaraab bu muddatu li mun a maatu fi fii awe arbumiatin bi xëy na ba Bakar jógee giri maxa ñëw dal xooxool jóge xooxool ñëw muy fekk biram jéeme kumba mu am lu mu ko sant mu réglé ko mu ne ko kon taalal ak ndaay lam ko sant tax dañu wax ne naar la bu ñuy wax teeñ moo daa def bu ñëwee ci réew mi xam-xam la yoroon waaye jolof kenn leen jaayu fit su ñëwee ci réew mi def ay ja ay kiyam rek gars yi génn mu fab ci alal ji lu ko neex fab ci jaam yi delluwaat euh, de delluwaat euh, Murtani léegi nag bém yéeme kumba ne Bakar mu a mën a ko man damaa am loo xam ne lii jaaxal na ma koo naar bi ñuy wax teeñ day ñëw ci réew mi te bu ñëwee ci réew mi day euh, moom daal mënuñ koo xamal dara xam naa nag xam-xam la waaye du fit na fit fii la yem léegi nag teeñ moomu bu ma xamoon bu ma waaw teeñ moom bu ma xamoon ah, ah, buñ ko mënoon a kii day ah loo bëgg danaa ko def Bakar ne ma ko man de mën naa koo rey na ko ah mën nga koo rey mu ne mu ne ko baax na ñu seet ñu xam naar bi juróom-ñaari mag ci muy ak yan-yan ñu ne noppam day joor ba day amoon nab jaaru loxob càmmooñ ba amoon nab jaaru Bakar war fasam dem ba Murtani xam nga kilifa su ñëwee ci kilifa ñaw yeew fasam ci taatu garab gi ak i fetalam bayi fa ñëw nuyu teeñ fekk ñu defal ko tilis yi ba moom ba mu ne ko man dama laa soxla woon ak kilifa ak moroom ma koy ko dama xanaa maa defe ne eh, ña fa ne du léegi teeñ daal di jóg yóbbu mu ànd ak ànd bakar ñu dem ci néeg bañ demee Bakar na ko lii yaa rek yaaram ma indi soo ma fas wee ak fetal yaag yëpp yaa ko moom su ma la reyee dem daal di koy rey dog bopp bi def ci gafaf gi loxo càmmooñ bi amoon na jaaru mu dog ko def ci gafaf gi daal di déparé Murtani wut si Jolof naar yi xamuñ ci dara ndax ñaari kilifa yu ne ci néeg buñ génnee kay kenn mënul nekk lii nangam léegi nag bi loolu amee Bakar war fasam daal dil si bi mu ñëwee nag ne Buur ba Jolof man de rey naa teeñ mu ne ko ah rey nga teeñ mu ne mu ne ko kon de léegi ñu woo mag ñi ko xam ñaari juróom ñaari mag kenn ku nee ne noppam nday joor ba am na jaaru noppam càmmooy ba am na jaaru eh, loxob càmmooy ba am na jaaru ñu seet ko muy moom mu ne ko kon nag lu ma la mën a fayee mooy taalal ak mu taalee ko mbooy naan bi njaayeen girde moo tax maam buuna mi nga xam ne moo fi nekkoon